mel ni xam nga ko. Ah. <laughs> xar yeeg yi déglu di seetaan euh, seen télévision bii di euh, Assalaamy TV <clears throat> ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di santaat bu baax a baax suñuy ñaari waajur di ñaanalaat bu baax a baax xalifa général sin Serigne Mountakha Mbacké basiiru Euh, di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér euh, di ko ñaanal mbooleem xalifa général yi nga xamante si ni ñoo nekk ci biir réew mi Sénégal euh, di ko ñaanal bu baax a baax nag borom kër gi di sëñ fàllu Galass la di ko ñaanal yàlla borom bi subhaanahu wa taala yal yàlla kattanal ko dëgëral ko ak ba lépp li nga xamante si ni moom la naal fas yéene koo liggéeyal ci kër gu sell gi di Assalaamy TV ak tamit Assalaamy Assalaamy FM nga xamante ne mooy quatre-vingt-dix-neuf point nga xamante ne yéen a ngi koy am Euh, direct ci rajo bi di ko am tamit ci télé bi ak ñi nga xamante si ni mooy suñu technicien yi te Habib Thiam jiite ko ak mbooleem personnel bi nga xam ne dañoo nekk ci biir kër gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla wàcce jàmm ci kër gi yal yàlla dooleel kër gi yàlla yàlla ful kër gi def ko ci kër yi gën a mag ci fii ci Sénégal ci àdduna bi yëpp waaye ginnaaw loolu ñu nuyu bu baax ñi nga xamante si ni mooy kilifa diine aada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 santé ñu feebar nekk si lalu hôpitaux yi moo xam ñi feebar nekk ci biir kër am na ñu koy soxaale tàmbeedu te mënuñoo tëdd ndax njaboot yàlla na yàlla boole saafara leen def ci poos yi dara ba ñoom ba ñu doon dara ba ñuy mën di dara laate ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko tamit ñi nga xamante si ni mooy way dawla yi yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen xaar leen ajjanay firdawsi ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke weeru safar gi ñu ne war a waxtaane nag lu rëy loo xamante si nii moom mooy ah wàccaay màggal gi ak tamit gan yi ak ñi nga xamante ni ñooy déplacé wu ñëw fekk ci fi nga xamante mooy mbokk yi nekk fii ci Touba ak ngeen gis nag dëkk bi nu mu mettie ak nu mu nee tacc taxaw xam naa ne damaa yaakaar ne man waa Déet bi rek maa ko yëg waaye ñi si des xam naa ne ñu ngi koy yëg bu baax a baax a baax naa loolu dinañ si ñëw ñu ànd seeg ki nga xamante ni moom mooy soxna Tambédou nga xamante ne moom kenn du ko présenté fii ci émission li ñuy dund nga xamante ne moom xam na euh, miin na kër gi macha allah tey nag mu indi ñu benn gan gu a baax ki nga xamante ni moom la ñuy wax euh, Euh, comment dirais Soxna Ndiata njaay nga xamante ne ma dem ñaa Niang Baalo maa ngi lay nuyu bu baax a baax di wax rek moom it ndey ndeysaan euh, dina si euh, joxe xalaatam ci li nga xamante si nii moom la ñu war a waxtaanee waaye comme ni nga ko waxee rek ñi ngi santaat bu baax a baax ña bokk yi nga xamante ñu ngi seetaan suñu nga xamante ñoo nekk à travers monde entier ñi ngi leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal ba fa fi ngeen nekk yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla sàmm leen sàmm mbooleem jullit waaye di wax rek ñi nga xam ñoo nekk ci tali bi yal na yàlla def jàmm ci tali bi yal na yàlla wàcce ci tali bi yal na yàlla wàcce jàmm ci tali bi yoon yi nga xamante ni am na taxatémbe ñu ngi ñaan yàlla suñu borom ak autorités yi nga xamante ñoo fi nekk ñu ngi leen di ci bàyyi xel di leen ci xaar bu baax parce que duñu tàyyi di ko wax ndax yoon bu amul kenn du mën a dem fenn ba tax na daal ñu ngi santaat bu baax di sant ñëpp ñëpp ñëpp di wax rek damay jox euh, Tambédou mu daal di nuyoo euh, xam naa ne namoon naa ko tey dafa ñëw jàkkaarloog waa kër Cheikh Ndigal Fall defal ma blanc noir sañseel ma ne moom tey ala accu amul bàyyi la indi tey soxna Tabeedu. Euh, mm-hmm. ah, nga nii de laa def kii de ku fi génn mooy baabakar Sarr mm-hmm. ba ca Ndakaaru booy jël ma Habib jël ma Habib doo jël. macha allah kii ku fi génn mooy Babacar Sarr moo nekk ca Ndakaaru njaay doomu Ndey Diouf macha allah waa xale bu am jombi moo ma daggal fii. génne ma fii Babacar Sarr yàlla sa jàmm yàgg. macha allah ñu ngi kontaan ak di jàkkaarloo ak yow. Euh, di la di nuyu waa Kébémer gi nga mm-hmm. jógee macha allah di mm-hmm. ci nuyoo ko waxee Serigne Mountakha Mbacké suñu xalifa général bi mu murit. noonu lañ koy ñaanal Serigne am nañ woon benn Fall di ko ñaanal kër kilifa yi di ñaanal ñi tëdd si lal hôpitaux yi comme ni nga ko mm-hmm. féete ginnaaw natt la rek kenn ku ne na la dal. yàlla leen yàlla jëlee di ñaanal nag suñu ay waaj waajur yàlla yërëm leen ci xare leen àjjana ak leen fa fekk di kontaan nañ ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy sekk ak yow di dund muy am fii nga xamante ni moom yaakaar naa ni moom kenn dootu ko laajte adduna bi ñëpp nañ ko ñëpp moom la ñuy topp kon ñu ngi fas yéene amal waxtaan bu am solo ak soxna Njaati Njaay mhm. suñu bu ñaawul bi nga xamante ni nag moom macha allah ni mu dikkatee dafa yàngi macha allah ñu ngi koy bàyyi mu nuyoo macha allah jërëjëf soxna Tambédou nuyoo bi am na solo trop macha allah dañuy santaat rek bu baax a baax si sa nuyoo bu sell bu yiw bi macha allah waaye da ci bëri feem nag danga ngaa bëri feem yow soxna Diatta Ndiaye madame Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Massamba. Mhm. maa ngi nuyoo soxna Tambidou. Mhm. di jiital ci nuyoo bi sëñ Muntaxa xalif général. Mhm. ak kilifa diine yëpp. macha di sant bu baax di mhm. nuyu technicien yi mhm. di nuyu képp kuy seetaan Assalaamy TV mhm. ah, di am mbégte ak contentement ci invitation bi de sëñ Massamba jërëjëf euh, soxna Diat Ndiaye euh, madame ñaa ñang baalo macha allah nee naa leen yéen seen waa kër moom mooy waa kër ñang <laughs> Touba boo ñëwee ñu ne la may ma kër ñang may ma baraada ba may ma jalu xeer may ma fee nu mu tudd comment dire amaat na feneen ñaar fi euh, jàkkay zeng ñetti mbaar ah man da jalu xeer may rey. bu gàtt. robinet bu suufum suufum Baye Ndiaye. ak jàkka muuma. <laughs> <laughs> macha allah yi ngi santaat bu baax a baax <laughs> euh, gis nga Sambédou comme ni ñu ko waxee euh, ñi ngi waxtaanee li nga xamante ne mooy wàccaay màggal nga gis ne tey euh, Touba bu ñu nee màggal rek mm-hmm. gis nga nu yoon bi commencé xat Euh, tey nga xool ñi nga xam ñooy déplacé wu di ñëw di fekk si ñi nga xamante ñooñu fii ñu dëkk si Touba. Mm. ñooñu tey seen slogan tey seen ñëw ci seen ñëw maanaam dañoo war a ñëw rek daal di toog. Mm. parce que Touba dafa mel ni jàppal ma jàpp la màggal Touba jàppal ma jàpp la. Ah, mais si biir jàppal ma jàpp boobu noonu. Mm. maanaam yi gan yi nga xam ñoo war a depp di déplacé wu di ñëw. ñooñu noonu nan lañ war a mën a taxawee. ak bu ñu ñëwee lan mooy seen taxawaay ci bis bi. Mm-hmm. dañoo war a ñëw rek toog mm-hmm. nit ñi di def ni ñu war a def wala nan lañu war a mën a def mm-hmm. maanaam dama bëgg a xam mm-hmm. ñoom bu ñu ñëwee tey fekk si way waa ñoom nan lañu war a mën a taxawee ci li nga xamante ne mooy màgg mooy màggal gi seen taxawaay lan la waaw am na solo sëñ Massamba laaj bi am na solo dinañ sawar di ci tontu nag li nga xamante ni moom la ñu xam ndax dafa doon lu am solo euh, du sax Touba rek fépp fu mën a doon ci àddina mbooloo di fa daje dafay nekk jàppal ma jàpp jàppal ma jàpp nag soo ko déggee c'est pas parce que jàppal ma jàpp ak sa sa poche wala da war a génne sa alal mais jàppal ma jàpp dafa bëri ay façon mm-hmm. ndax tey dangay ñëw si kër màggal si fekk fa ay nit dañuy xëy di togg di raxas di fóot di dalal gan ñi yooyu yëpp jàppal ma jàpp ci la bokk ndax soo mm-hmm. nekkee sa kër foog naan da nga ko fay def soxna Njaate kon soo demee fekki ay nit tamit muy mbooloo mu bëri te mm-hmm. ku ne xam ne ni Touba dëkk yiw la dëkk la boo xamante ni da ngay da ngay joxe mu delloo la da ngay joxe mu delloo la mooy sëñ Tuubaa loo ko jox mu delloo la ko boo seetloo loo fi indi ren jii incha allahu bi bu déwénee da koy ful mhm. mu ci lu mën doon ci sa kattan ci sa poche ci sa lépp lu mën a doon mhm. kon ñi rikkiwaay ñuy ñaax ñi nga xamante ne ñooy fekk si mhm. ak ñi niy fekk si Mm. ñu yaatal gan yi mm. gan yi tamit ñu doon ñoo xamante ni ñu ñu neex a yaatal la mm. ndax des fois nag nga am ay gan yu xaw a metti mm-hmm. waaw ndax gan bu fekkente ni dafay ñëw rek meewu mm-hmm. toog rek du wàcc lal bi wala su ko wàccee boo muy tuuti ñoo xam si kaw lal la ñuy teg seen ay lekk mm-hmm. foofu la ñuy teg seen ay ndox foofu la ñuy teg seen yëpp mais da ngay xalaat ni après nit ki su paree da nga koy bàyyil ab coono bu metti ndax coono màggal ku ne xam ne ni murid sax du yëg coono ñun duñ ko yëg waaye nag mën nañ ko tuddee coono léegi soo ko yokkalee coono beneen coono mooy da nga koy gën a sonal mooy li nga xamante ni soo ñëwee si màggal man ci li ma xalaat danga fa war a bàyyi sa ñaq hmm. bàyyi sa ñaq du question que ne da ngay génne sa poche mën na nekk sax ndax kenn ku ne war nga am loo def ci bisu sëñ Bamba hmm. ndax bi sëñ Bamba néewu leen kaay leen sant ma man sëriñ Touba déedéet néewul kaay leen gërëm ci sama jëf sama liggéey dañi kaay leen sant ma sama borom hmm. te yaakaar naa ni kaay leen sant ma sama borom nag su ko nit di def war na koo defee ak li man lépp ba mu jeex ndax sant sa borom du lu ndaw kon war nga koo sante nu ne ci sa doole ci sa poos ci sa xel mu rafet ci sa yiw ci si lépp hmm. kon ñiy fekk si nañu am xel moo xamante ni dinañ mën a jàppale ñin fekk si ñin fekk si tamit doon ñoo xamante ni nañ gën a yaatal gën a hmm. dimbali gan ñi hmm. ca li am na leneen loo xam ne war nañ ci am na wax nag sëñ Massamba am na ay sama mbokk chauffeur yi laa koy wax ak ñi nga xamante ni ñooy yor yi ak yeneen ak yeneen da ngay jël gan gu jëm bitigu bàyyi Jóob Euh, wala garage su daaru nga jël ko nga yóbbu ko feneen parce que gan bi xamul Touba miinu Touba soo ko jëlee yóbbu ko foo xamante ni da nga ko gën a sànq da nga ko gën a réeral ñuy dimbali tamit gan fu gan bu ñëwee jëm fu mu xamul bu ko ni duggal boo demee ba benn koñ soo wàccee di nga gën a jige da nga gën a sànq parce que miinu Touba loolu dinañ si ñëw sax je pense que euh, mm-hmm. comme dañu nekk ci euh, li nga xamante si ni moom mooy maanaam gan gi bu ñëwee lan mm-hmm. moo ko war ci biir fi nga xamante fa la dal Euh, loolu dinañ ci ñëwaat incha allah. parce que mm-hmm. dugg nga mm-hmm. euh, point bu euh, bu sensible. Mm-hmm. dañuy retourné wu rek ci madame Niang madame Niang nan nga gisee li nga xamante ni mooy gan gu war a déplacé wu. ñëw fi nga xamante ni mooy fekk ci mbokkam fii ci Touba taxawaayam lan la. waaw man nag màggal li may wax pèlerinage la. pèlerinage laa ko jàppee donc pèlerinage. wut si yiw la. kuy wut si yiw nag da war a jariñu. jariñu bi ci comportement mhm. euh, jariñu bi ci ci ci ci ni ngay doxalee ak nit ñi mhm. ndax tamit boo ñëwee ci kër mhm. euh, gis gaa yi di euh, tëdd ka jóg dangay ngay tëdd ka jóg te boo ñëwee ci kër ñu wàcc lal yi jox la yaay am xel ne ah dama wut si yiw wut si yiw bi mooy di nga fekk ñuy raxas nga ni xaaral ma raxas léegi ma jàpp ci mooy jàppal ma jàpp bi <laughs> voilà di nga Euh, ànd ak nit ñi ci togg bi ànd ak mm-hmm. nit ñi bañ a bañ a def sa bopp ne gan nga gan nga mm-hmm. Mm-hmm. voilà parce que pèlerinage la booy wut si yiw daal waroo bàyyi dara te comme màggal ñun dañu ñëw génn néegi génn lali dalal gan yi di leen beer bernde ku ñëw war a màggal si da war a def ne ñun kenn bañ la ëppale ci yiw bi loolu daal mais yéen souvent damay dégg ñu naan euh, maanaam yéen ñëw leen da ngeen toog ñun ñu def lépp yenn saa yi dafa am ñu koy wax. waaw loolu loolu mooy am na ñoom duñ dégg loolu jàpp ne loolu moom moo war a continuer rek ñu daal di. loolu mooy murit loolu mooy murit murit ak pas-pas. <laughs> <laughs> murit ak pas-pas pas-pas bi mooy bu sëñ bi ne kaay ma sant la leen bépp murit day defe ni moom dong nga war a sant. Mm-hmm. léegi nag defe na ni képp kum ko yombal ba mu egg ci lool. Mm-hmm. ah yiw bi kenn du ko ci ëppale mooy li ma wax rek yiw la. Mm-hmm. Mm-hmm. màggal moom jëf jël la. lu waaye def tibb ci ndab la. lu waaye tibb si sa gémmiñ la jëm. waaw ah, nañ ko xamee noonu. lu waaye tibb sa gémmiñ la jëm mu nekk lox bu am solo. mais tamit euh, dafay am souvent yow tàmbeedu. ñoo xamante si ni euh, ñoom dañuy bëgg à chaque fois euh, ñu ne ah yéen bu ngeen ñëwee jaw leen ngeen toog. ñun ñooy def lépp. maanaam yéen duñ leen sant am nañu sax boo leen paree sax bu ngeen bu ñuy dem sax bu ñuy ñëw du ñu indi waaye bu ñuy dem dañ leen di joxaat paas sax parce que bëri na fi gis nañ ko aussi tamit ñu koy def est-ce que tamit loolu dugaluñu ko ci yenn ñi ñooñu jàpp ne loolu moom mooy màggal gi te fekk na ñooñu tamit ñi ngi dund ci ñoom tiyaaba te yëguñu ko dëgg la voilà loolu am na solo mooy li soxna Njaati wax rek nee na tibb la boo xamante ne du mooy sa gémmiñ mhm. loolu tibb rek bu neexee suñu borom sa gémmiñ lay dugg mhm. nit ki su amee yéene ak bëgg-bëgg ak pas-pas mhm. ak xër mhm. ban la ah sëñ Massamba màggal si nga de mais laa laajuma la dara waaye santuma la tamit dara mhm. mais sëñ Massamba nit la mhm. ca taal bi la ci bëgg na xanaa yiw te it am na xel dëgg la loolu su la ko nit ki waxee man pour man daf la sas dëgg la ki leen santuma la dara ah man boog ci man laa wax de boo ma ko waxee danga ma sas danga ma yokk jom dinaa dem ak sama jom dinaa dem ak sama ngor dinaa dem ak sama fulla dinaa dem ak sama propre moyen bu nga xamante ni man moom laa am ci tous les domaines nag moyen bu mën a doon buñ la waxee loolu man loolu laa xalaat mais ñëw ci kër wax dëgg gi fa yàlla ñi nekk Touba ay jàmbaar lañ mais des fois nag dafay am ay gan yoo xam dañ leen di sonal trop. Mhm. jigéen sax moo warul sax du du rek de jigéen moo warul nekk fenn ay moroomu nawle jigéenam di def dara ci dugalu ci loxoom. man boog ci li ñu ma yare li ñu ma mhm. da a teel a a defar seen ay néeg mën a dem seen ay yeneen liggéey parce dañu am njaboot. Mhm. am yeneen ay soxla ku ne xam ne ni waa ñi day tàng. day metti ca day tar ndax liggéey bi day bari. mais yow tamit ndax lu kenn man ñaar ko daal. ndax moom daa bëgg yaram <laughs> ndumbe mi ma xam sa sa ndakaaru muy ñëwkat bu mag ndumbe mbaj ndumbe bi xam naa moom moom noobul la moom na toog ca lal ya di noowale xam naa ne li wax nii gëwma moom ndumbe def indil ma ndumbe bu <laughs> daa bëgg lu yomb indil ma ndumbe rek incha allah rab dinaa ko dinaa ko dinaa ba mu nooy en tout ah. ñun de am nañ gan ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage soxna Binta Tall mm-hmm. Euh, toggalak bu mag la mi ngi ndakaaru mais buy ñëw Touba màggal si day duy valise ba mu fees mais malheureusement benn mbubb la ciy sol mooy hôtesse ba ñu xëy cëppoo waaw ndax ca waañ ba lay nekk ndax léegi ngeen nekk ca marine ba ba gudd day toog ba def nii suñ nee ko waa Binta mu ne ah kan moo reeragul ñu ne ko jógal tëdd ngeen yëpp reer nañ macha te ndeysaan euh, surtout El Hadj Malick la. macha allah radiyallahu taala anhu yàlla boole ko ak ñun ba ba fi mu toll nii nee na. Mm-hmm. yiw fépp lañ koy wutee. billaay wallaay taala Tiwaawoon wootee kenn du ko fa. Mm-hmm. Eh, waaye Tuubaa gii de màggal moo kenn du ko ci mën ci suñu xam nga xam nga loolu loolu mooy modeste. mooy modeste. modeste mm-hmm. parce que nite. Ah, nite quoi. nit nite. nit nite. nit nite. nit moom bu nitewul. doonatul nit comme mala rek. Mm-hmm. Mm. waaw te nit ñi wax nag tamit bu nitewul yéen ñi nite def ngeen jéem a. def jéem ko ko nitee rek. ñoo xam ne dañuy nitee di ko ba pare nag dëggal si nitee di ko bopp pour ñoom loolu moo normal. voilà ñoo xam ne si moom mm-hmm. maanaam. yàlla moo leen bind ñoom ñoo ñoo xaw ma sax ma astafurlaa mm-hmm. maanaam ñoom ñoo jël taayal rek bokk ko ànd ak moom di wéy ak moom di dem <laughs> ñoom fu ñu dem yóbbaale ko mm-hmm. ñooñu te duñu am nag problème nag duñu am benn problème mais problème nattu la boo xamante ni ñoom mm-hmm. bu ñu ñëwee comme màggal Tuubaa rek ñoom dañ naan ah nañ toog xaar ñu fa ñoom waaw waaw nañ noos affaire yo mais mais dëgg la lekk naan ah, ginaar ba gëléem moom boo ko déggee noos la waaw ginaar ba gëléem bu ko dégg noonu la parce que màggal Tuubaa boo xoolee tey ni mu ni mu ni mu demee. Mm-hmm. nga xam ne Serigne fàllu kenn du moom. wallaay wallaay ndax Serigne Fallou ba sëñ sa Moustapha toogee ku nekk da ko doon màggalee sa biir kër màggal Touba noonu lañ ko doon màggalee. Mm-hmm. waaye ba sëñ fàllu toogee la ñëpp na ñëpp na ma fekk Touba looloo. wóor la léegi mu nekk décentralisation bu am solo. Mm-hmm. mu nekk loo xam te maanaam général la. da koo da ko yaatal. léegi nag ci biir yaatu googu noonu comme li ngeen di wax. tey bu fekkee da ngay gis tey koo xamante si dafa mel ni tey Marème Thiam sama mag ba ca Ndakaaru <laughs> ah sañse ba jekk mel ni tàmbeeru ñëw ne faax <laughs> toog di def benn activité kooku loolu maanaam moom mi ngi ñi ngi jël ci moom ay yiw di jox ñeneen mm. parce que képp koo xamante ne jotaay la mu mënti doon kay servi lekk gi mm-hmm. wallaahi moo gën a ëpp yiw waaw nga xamante ne ñoo toog mm-hmm. même ki ko joxe ki koy ki koy defar di ko joxe sax moo ëpp yiw ki ko joxe wallaahi boo joxee sa xaalis dëgg te defoo ci dara. waaw noonu xoolal galas Baye Mbène. macha allah Baye Serigne Abdoul Karim. Fallou Awa Bousso nga xamante ne nee naa la moom moo jël maam Awa Faye tudd ko. Mhm. mu màgg ñu war ko denc ñu jël ko jox ko mu am ci sëñ Abdoul Karim. est-ce que macha allah jël maam Awa Faye. Mhm. tuddee ko yaayam maam Awa Bousso. Mhm. macha allah waaw ma Awa Faye màgg war a dugg biir néeg war a dugg si néegu sëy mhm. ñu jël ko dénk ko Serigne Fallou Galas Baye Mbenn mu am ci Serigne Abdoul Karim borom Makaarimal Axlaa macha allah ba ca borom ba ca Ndindi kon kii mooy kii mooy Serigne Fallou Galas Baye Mbène ñu koy siyaare baax a baax nga xam ne moom moo yaatal màggal gi. kii mooy xam yoon bi. way juru soxna mm-hmm. Daba Falilu. soxna Daba Njaareem. waaw mu sëñ Alaaji mu sëñ Alaaji mu sëñ Basiru mm-hmm. sama maam ju baax ja. xoolal loolu kenn du Fallou Awa bu sox kenn du moom. kii moom booy wax ci moom damay ragal émission bi ñu daal di koy. xam nga ne kanam gii <laughs> ah. kanam gii. fulla gii leer gii <laughs> fayda gii dignité gii lay faral kenn du kenn du moom kenn du moom rek ko moo tabax juma sampuraay wallaahi doo ko ñaan teg sa bët de wallaahi gis kenn du ñaan ci turam bi ci ah. doo ko gis de ah man boobu euh, kii mhm. maanaam dañ koy ñaanal rek mhm. waaw kii dañ koy ñaanal rek. démb démb démb ci ajuma ji mm-hmm. euh, ci xidmal borom Touba bi ñuy def chaque ajuma ci ngi gis gi buntu ko sëñ Fallou. Mm-hmm. seral ndox jox ko jànkatu alxuraan yi. Mm-hmm. muy fondation bu am solo ñu ànd ceeg soxna Oumy Mbacke. mu sëñ si Ahmed. mu sëñ Baara. ndeysaan benn maire dafa ñëw ba ci ngi gis gi jooy mag la jooy jooy ma ni ko jàkk daane soxna ummi mu ne ma waaw ma ni ko kii de sëñ Fallou daa am fu mu moom fu kenn fekkul jooyal yii mm-hmm. mu ree ah, ne ma ah, soxna ñaade ma ne ko sëñ mooy wéet ak ku ne ku ne lay wéet mm-hmm. fekk la foo xam ne kenn du la fa fekk te mm-hmm. kii mooy sëñ Fallou mu ne ma dëgg rek nga wax ma ni ko mooy borom mboot bi te kum boot daal rogganti la ba doo laal suuf macha allah maa ngi koy nuyu taalibe sëriñ Fallou la kooku di moom mooy mooy euh, soxna soxna soxna euh, Tambédou mhm. euh, Tambédou kooku moom mooy soxna madame Silla macha mhm, allah noonu ci Kébémer macha allah waaye soxna Fatou tamit taalibe Serigne Fallou waa mhm. angle Serigne Fallou bi maa ngi leen di nuyu bu na angle Serigne Fallou bu fa ne waaye ñi nga xamante dañoo sopp Serigne Fallou rek te may déglu rek maa ngi leen siyaare bu baax ci garas bay benn waaye Tambédou yaa ngi doon wax wax bu am solo nga jëmale ko ci li nga xamante si nii moom mooy yoon yi jëmale ko tamit ci li nga xamante si nii moom mooy gan yi nga xamante tey war nañoo transport bi jëm mhm. te aussi tamit loolu c'est très important parce que tey mhm. euh, da ngay gis koo xamante ne nii day déplacé wu di ñëw te xamul fu mu jëm mhm. te day metti moo tax nit ki bala muy déplacé wu di ñëw fenn war na mën a am Euh, li nga xamante mooy adresse. Mhm. loolu tamit c'est très important. Ah. parce que mhm. da gis ki mhm. toog ci daal ngay woo nit ki te Touba am na état boo xam ne boo fa tolloo. ki nga xamante ni tey moo la invité. pour mu la téléphone problème la téléphone problème léegi nag da ngay moom mooy si yoon bi ñu war a ñëw parce que yoon bi neexul. loolu allah euh, sëñ Massamba waaye tamit dafa doon loo xamante ni si ëpp du doon si gan yi comme ni ma waxoon sànq ngay gis kenn koo xamante ni du dëkk Touba. Mhm. Touba moom da ngay gis ñoo xam dañuy takk seen ay charrette ñëw ñu indi seen ay oto duñ miin Touba duñ mhm. xam Touba. Mhm. nga taseeg benn soxna tam benn njaati mu ni man de damaa bëggoon dem garage Daaru wala fenn xamuloo foofu yow mais da koy jël pour xaalis bi. dëgg soo demee dem dem ba yàgg nga wàcce ko foo xamante ni. ak chauffeur yooyu lay si loolu la ñuy def ñoo ko dàq def bu wàcce ko foo xamante ni ah, man gis naa ko xam dafa yenn bagage mi di jooy. xoolal jooy xàcc mag la. ni man fi ma jëmoon maa ngi jëm sexaw ga. ndeysaan sexa ku jëm sexaw ga de. wallaay borom sara bi ni ko yéegal xam nga fan la ko indi fi ma dëkk Sénégal. tànn de sexaw ga ak Sénégal miin miin ma sexaw ko de. mais xam naa du du côté bii de. diamétralement opposé. <laughs> mais borom sareet yi aussi. borom sareet du côté bii bëri dëkk ñu Touba de. moom laa la wax. maanaam bu fekkee ne Touba màggal gi def na fukki fan. xamuñu Touba li takk seen sareet bi war a ñëw fii si Touba. duñ laajte xamuñu fa. dañuy jël ci rek sànni leen. dëgg la mu doon lu metti mu doon loo xamante ni lu doy waar la. doy waar lu naqaree mm. li jën ci. Mm. xam nga problème bi mooy maanaam comme li nga li nga wax nii rek. xam mm. naa ne euh, madame ñaa am na ci parole. Mm-hmm. loo ciy wax madame Nia waaw li may wax rek jógandoo moo di mel. Mhm. ndax jamono ji xat na kenn mënta teel a ñëw. Mhm. te fu ñëpp daje faaw mu am yëngatu. Mhm. mënta ñàkk ak may ma jàll. waaye it ànd ak sa xel. ak it koo gis def ko ni sa bopp. Ah. ndax yaakaar naa boo gëlëmee bëgg nga ku la gindi. donc boo gisee ku gëlëm jàppale ko ci loo mën. gis nga ñeent fukk ba ngay yokk def ko téeméer. du dara. Mm-hmm. ay ñeent fukk ba ngay bàyyi def ko cent franc. Mm-hmm. bu barkeelee faj soxla. Mm-hmm. dëgg neexul bari la ko gën. barkeelu ko gën. donc nan bàyyi waa dellu si waa delloo xel yi. te xam ne benn fan ñaari fan. mun faj soxla munta faj soxla. nañu fas yéene profité ci yiw yi. te it nañ bàyyi xel chauffeur yi ne yoonu teggi. am na ndox macha mm-hmm. allah. waaw mm-hmm. waaw kon gan yi ñëw. Mm-hmm. bu nu yàkkamti yàkkamti ba ba foncé wala ñu yàq seen oto. bu tali bi ne tacc bañ ne xaaral ñu wàcc. indiwaat seen bopp yeneen jafe-jafe. wàcc boobu indi problème yi nag. waaw mu indi problème yi. ganit mënut a gindi gan. Mm-hmm. doy na waaw waaw léeg-léeg gan ñëw dëgër fit ba mel ni jaate nga ne ko waaw fii laa jëm. mun la fee faalu laa jëm. Mm. <laughs> mu ne la boo jaadee nii. <laughs> waaw waaye de noonu la doon def doon la doon def de. <laughs> xaw ma moom du gàcce. Mm. waaw waaye màggal ma mm-hmm. a xam-xam lu da nga lor ka lay laaj. mu ci bàyyi xel bu baax. Mm. xam nga xamuma sax dafa am solo. Mm-hmm. parce xamuma doo ci am bàkkaar doo ci am dara. parce que xamuloo parce que xamuloo te wax nga dëgg bi. wallaay boo xamul xamuma wala nga dem laajte ñi nga xamante si nii mooy jaaykat yi voilà wala ñoom fi lañ dëkk si mhm. Touba parce que Touba sax màggal Touba pour nga gis ki fi dëkk sax réellement jafe na dafa jafe dafa dëkk ngi ci kër yi waaw waaw si kër lañ a dalalaate du dox mhm. ki a dalalaate du liggéey yi koo tasee laaj ko gan mm. yi mooy ñi nga ñàkk mooy sage-femme yi ak médecin yi médecin mm. la ak médecin mm. ñooñu moom mënul ñàkk ak ñi nga ñoo yore mm. rek seen sécurité waaw kay c'est ça mais ñi si des mm-hmm. ñëpp dañuy nekk fi nga xamante ni moom mooy seen bërëbu seen kër ndax ñoom dañuy xaar mm-hmm. gan yi ñëw ñu ma leen dalal parce que kii ñëw di la dalal il faut mu fekk la fa effectivement bu fekkee mm-hmm. yaa ngi fii ci dëkk ba seen bi di Touba comme ni nga ko waxee rek nee naa leen daal képp koo xamante si nii da nga réer wala tey nga bëgg am fi nga bëgg a dem maanaam na xool bu baax li nga xamante ne mooy tegtal yi ñu lay jox. parce que Touba mm. dafa màgg dafa développé. effectivement ba pare mbedd yi bari dañoo nuroo aussi tamit. surtout loolu en même temps aussi tamit li nga xamante ni moom mooy jëm jafe-jafe ci yoon yi nga wax noonu. mooy mm, mm. Euh, yoon yi nga xam dafa am ndox. ak ñi nga xam dañuy yor oto parce que jamono ji moom macha allah tey ñun ñii rek ñu amagul oto. <laughs> mi ngi ah, ñëw am na oto am na oto waaw ah, yow am nga oto yow am nga oto. dañuy ah, sàmm dafa war a am oto. kon Fallou Galass la ñu ngi lay dégg dina mu wutal oto léegi ci nuyu dugg yow. <laughs> macha allah am oto fii ñëpp ay léegi incha allah daamal nag ngay la nag macha allah sama technicien nu mu nu mu leen di cadré mhm. maa ngi koy uh-huh. bu baax a baax macha allah euh, macha allah ak mm-hmm. mbooleem technique yi nekk ci yi nekk ci biir mm-hmm. waaye comme ni ñu ko waxee rek ñi ngi waxtaane li nga xamante ni mooy wàjjaay màggal euh, mm-hmm. ci émission li ñuy dund ma ànd seeg soxna Tambédou ak euh, soxna Njaata Njaay madame Ña mu nekk lu am solo tey nag mu nekk bis bi nga xamante si ni yaakaar naa ne ñi ngi ci ñi ci safar gi te gars yi gi yokk beeg seer na. safar gi instant bi xam naa sama kémbe de. wallaay wallaay parce que parce que parce que boo xoolee safar gi. Mhm. maanaam ni mu doon mel bu njëkk. effectivement ak léegi ba pare da ngeen a seetluwul benn affaire ci dëkk bi. Mhm. dëkk bi dafa jékki-jékki ne tekk. déggoo dara dëkk bi tekk la def. xaw ma yéen a ngi yéen a ngi koy seetlu wala man rek maa ko seetlu ah. Mhm. wala man maa seetlu loolu ah, ñëpp ko bi tekkaay dëkk bi. waaw mais am gi ñu jëm. embouteillage bi bëri na nag gisoo sànq bi ñuy ñëw. waaw mais mais mais maanaam Sénégal ci boppam Sénégal Sénégal man Sénégal laa wax. du Touba rek. Sénégal Sénégal dafa ne teg loolu yàgg na fi. dëgg la léegi. loolu mat na cinq mois si ginnaaw. ak mhm. tekkaaral bi. tekk la def. parce que mhm. dara doxul dara puusul dara paasul. léegi nag loolu ba pare ñu jëm ci màggal tubaa te ku ne mhm. màggal tubaa ku ne xam na ne màggal Touba y a des la yoo xamante si nii maanaam nit ñi. il ñu am ko ñu mën a def màggal Touba. boo xoolee tey transport bi tey màggal Touba bu ñu xasee ba ne màggal Touba transport bi day yokku. day surtout. lépp ay yokku lépp ay yokku foo mën a dem ne tey màggal bu budget la. budget la léegi nag ki nga xamante si ni tey dafa war a dalal ay ganam comprendre nga ñu tàmm fa di dal mm-hmm. te instant bi fi jamono ji toll tàmmeedu ak ni mu méttee mm-hmm. ca nag dëgguma la. Euh, màggal Tuubaa. loolu kaala de. waaw ku ñëw daaw. su ñëw ah? dina daal cinq personnes day indiwaat nit waaw. <laughs> day yokku. dina daal lu mat cinq personnes. Hmm, day mm-hmm. yokku. Euh, sëñ bi Samba ma dugal kii bu am solo macha allah. Mm-hmm. Euh, ci soxna Ndiaye mi. waaw su ma la bi ma ko xamee léegi ma une semaine. ma déedéet. <laughs> ndeysaan ndeysaan te maa ngi ko xam ci sëñ Ablaye Niane Mbacke. maa ngi koy mm. nuyu de passage. monsieur mm. Niane monsieur ak maam Soxna Mbacke madame Niane. madame Niane maam Soxna Mbacke waaw Sénégal tool Ablaye Niane. macha allah ah, fa laa ko fekk ci li ñuy wax ci nit ci yaatal. Mhm. moo ku fa naan ndox moom moo la ko jox. Mhm. ku fa naan kafe moo la ko jox. bi ma génnee laa mhm. laajte numéro loolu semaine passée la ah defe naa ni. semaine passée semaine passée la. bu ma ci semaine ci la yem. bi ma génnee laa laajte xaadim. ni ko dama soxla numéro. parce que numéro bi li tax ma laaj ko. ni ma gis. comportement yi mu amee. Mhm. ci nit ñi ci nit ñi bari woon nañ fa trop. Mhm. mais kenn ku ci nekk jox na la yitte jox la yëg-yëg macha allah. Mhm. sonnul tàyyiwut. kon loolu dama ni woon suñ toogee incha allah rabbi dinaa la ko wax jàllale ko mu doon lu am solo. ma seetlu ci moom nag. da ngaa ñàkk ki ñaan alhamdulilah nit ku baax la macha allah. macha allah sant rek. parce que li may wax naan. Euh, boo juddoo fa nga war a juddoo ñu ñu yar la fañ la war a yaree nga bokk fu baax euh, ndax buñ ne Mouhamadal Fadal Bachir mooy sa maam mm-hmm. war nga am benn comportement bi mm-hmm. macha allah ñuy doomi ndar nag di waalo waalo ah, yaatal ak terle ci nun la fekk baax sa mbokk nga sama mbokk nga ah, te tamit ndeysaan sama yaay chaque jour loolu lay wax danaan mm-hmm. kenn ku nekk yaay sa ambassadrice su famille effectivement te ku fonk sa fami di nga mel noo xamante ni kenn du leen jàll benn baat kenn du leen xeeb ah loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla. Mm-hmm. c'est pas donné à tout le monde nga dëkk Touba. Mm-hmm. waay waay mm-hmm. waay boo dëkkee Touba am nga noo war a mel. am nga noo war a doxee. Eh, ci loolu kenn rek laa koy sante muy Cheikh Camara di sama nijaay bokk ak sama yaay benn. yaay macha moo ñu indi tuubaa ñu nekk këram ba tey lii lépp am. te man ba may ñëw Touba dama dama dama feebaroon jaaxle. dafa woon naa ni ndakaaru rek kay dëkk. waaw dëgg na nekkee Serigne Touba bu la bëggee dimbali bëgg laa defar dalay om man ci dëkkam bii <laughs> caral la. waaw damay commencé woo man man. Ah, waaw te comme bu la <laughs> nekkee alam da kaa war a gërëmee cooy. kon Camara yi sama nijaay jooju. yàlla na gudd fan te ànd ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu. suñu nijaay <laughs> yaatu na. waaw voilà suñu nijaay am nga man nag man dëkkaguma Touba bu <laughs> ma paree nii damay ñibbiwaat Kébémer. <laughs> xëccal ma ko tonton Kamara bu du yoon de <laughs> ah. nijaay mooy yaay te taxawee na ko. taxawee na ko bu baax a baax yàlla na yàlla guddal fanam. Mm-hmm. may ñu ñu àggali yéeneem ci moom. Mm-hmm. ndax nit bu la defalee lu baax. fay boo ko mënul fay ne ko jaajëf ba ñëpp xam ne ni mm-hmm. bëgg nga. incha allah ah, yal na yàlla a lépp. allahumma amiin ah soxna Tami du man moom du ma du ma la sant dama lay ñaanal yàlla. parce que gis nit estimer ko c' est pas tout le monde. wallaahi xol bu rafet ko lii man. xol baa baax. la ci man daa gaaw a jooy nag te jooyam dama koo nam damaa bëgg mu jooy jàppal point boobu. dimbali ma si point boobu rek damaa bëgg mu jooy quoi. Baye Fall du gaaw a ah, jooy kii kii tey Baye Fall la kii tey Serigne ah. Touba Cheikh Ibrahima. jàpp si rek <laughs> jàppal ma jooy jàpp damaa bëgg mu jooy quoi dama bëgg mu jooy non pas du tout. du ma jooy. ba demee farance bi du ma jooy tey du ma jooy. xam nga loolu lépp rek lu ko waral. mooy olof dafa ne lu juddoo si tàgg bu naawul jaaxali bokkam te lu jóge ci xol ci xol rek lay lay lay ndax mbooloo mën na bari torop waaye ku ci gis sa nit xam ne kii sama nit la looloo am tey ba tax na tey li li mu la jox yow da ko ko delloo parce que loolu noonu maanaam yombul kon boog yaakaar naa ne yéen a bokk teen bi yéenay laxasooy ngoñ bi waaw teen bi ci pënd bi baag pënd bi ci bi ci bi ci bi ci bi buntub teen bi gars yi amul baag donc ñoo koy nekk ñi am baag liñ fa werante root rek dem waaw mais nag noonu ngeen def ba tax na loolu rek moo am solo parce mm. que àdduna mm. daanaka li fi ëpp solo lépp teranga mm-hmm. la tey diine bu taxawee ngor taxaw jëlal ngor bàyyi diine mm-hmm. ndax boo yoree ngor du mu yàgg-yàgg di nga boo téye diine di nga ko téye mm-hmm. ndax am nga ngor mi ngi ci yow mais boo yoree diine te amoo ngor. Mm. lu mu yàgg yàgg di nga bàyyi diine. Mm-hmm. Mm-hmm. kon boog ngor moo. ngor mooy lépp diine moo fi jiitu. mooy base nit kon mm-hmm. ngor googu noonu yàlla na yàlla mottali ko. ndaw moom ko. macha allah mu nekk lu am solo. waaye tamit euh, Tambédou euh, li ci ëpp solo tey ci waxtaan bi. mooy euh, nit ki nga xamante ne tey. moom lañ ñëw tey seet si moom nan la war a dalalee ganam. tamit sa très important parce que am na ñu mënul gan. am na ñuy siis gan. am na ñu nekk fa indi ay affaire naan dañ fee yàgg dañoo teel a ñëw dañoo yàgg dañoo teel a ñëw mm-hmm. xool si soof nañoo mm-hmm. mm-hmm. <laughs> loolu ñu tëddëj ñii set nañ est-ce que duus ba loolu am na ah loolu am na ah, loolu ngay wax nag am na ñuy léebu loolu noonu am nañu ko moom ah, waaw am nañu ñoo xam ne mi ngi leen di léebuwaale ci loolu <laughs> dafa am sikki waaw am nañu am na ku ñu léebuwaale kooku ñoo dégg incha allah. waaw am na sikki am na ñoo xam mënuñu daloo kenn. waaw douche bi dafa kii nii li ñu def. di kii kii mën nañu dugg ci. ah naan waaw pot bi pot la naanoon. ku ma si naan. Ah, doy na waar am na ñu mënul gannaaw. ñoo loolu laa lay wax loolu ñooñu seen taxawaay lan la. Ah, waaw seen taxawaay moom. mooy mooy ñu defalaat seen ah, seen seen taxawaay war a am dal. ndax yaa woote waaw te dañ ne ku boot bukki xaj baw la. ak wér. ca yaakaar naa ni soo wootee moom ñëpp wuy si la. Mhm. danga sax war a kontaan. dëgg la. ak nu mu mën a mel man dama leen di wax ni wallaahi al azim màggal su amee. Mhm. toujours sama sër laalal ci suuf. fuut fu ma njëgënaay rek tëdd. dëgg la noonu laa def te lu nit ñi yokk nag xem naa euh, di woo nag soxna Awa depuis Kébémer di sama xarit mu bëgg ko lool sama xol. macha allah ah, ah, soxna Fatou euh, soxna Fatou Eva maa ngi koy woo incha allah. incha allah sama gan la soxna Fatou nga naan Eva. waaw Fatou Fatou la ah Fatou lu ma Eva. awa mooy Eva. Eh, awa wax nga dëgg Fatou mooy eh, waaw wax nga dëgg. Itali baaxul Fatou mooy Tufaare. Itali boobu mooy Tufaare li ko xale yi di wax. waaw Faa wax nga dëgg Faa. maa ngi lay woo ma macha allah xam nga man moom woo naa ñëpp bëgg naa ñëpp ñëw incha allah rabbi. lii sama benn frère waxoon ndeysaan benn bàggal mu di xaaral ma di tëddi wallaay lu ko bay ci kanam tuuti nit ñi dañuy bootante pour tëdd. moo tax euh, nañu yaatal rek gan yaatal ah, xol yi ndax bu dul gan sax bu dul dara mm-hmm. nit dafa war a yaatal xolam surtout mm-hmm. jigéen mm-hmm. Euh, ca Touba dafa am ay ay ay kii yoo xamante ni ay mandarga ay jikko yoo xam ne dañ ko xam ci ñoom yaakaar ko ci ñoom foog ko ci ñoom ndeysaan dama yërëm sax ñi ñëw gis nga su màggal xasee jot du xaadir bi du tijaan du laayeen du chrétien bi du ci kenn seen xel seen xalaat lépp wallaay ndeysaan ñëpp seen seen da ngay gis ñoo xamante ni da leen di jaral lu nekk. man des fois sama buntu boutique saret dafay romb ñoo xamante ni ci nawet bi da gis koo xam day jóge ci kaw saret ba ak ndox ma maag valise baag doom ji yëpp. daanu ci biir ndox mi. Oh. mais su jógee au lieu que mu découragé sax jéem a ñibbi énervé wala dara. day ngay gis mu yéegaal yéegal bagage bi. ndeysaan billaay ndeysaan di di di woote pour fi mu jëm ne maa ngi egsi. dëgg la te su ne mën na la rombaat ñiwaat kon nga xam ne dëgg-dëgg nag nit ñi bëgg nañ Touba bëgg nañ Serigne Touba kon li tax ñu bëgg Serigne Touba rek waaye nañ ko gis ci ñi nga ba ba dañu xam dara ci màggal gi waaw am na ñuy ba ba pënd ba dal boo dal bu doy nga ne waaw waaw waaw su ma demul fii mu ñaaw kenn ku laay sol nuyu ji am na ñoo xam bu ñu xëyee suba kër gi ñu dal màggal suñu fa xëyee génn guddi guddi étudiant wala ci beneen suuf bokk rek bokk rek ndeysaan ko jar waaw dafa dafa am solo nag ah, bokk rek bokk rek dafa am solo <laughs> euh, moom buñ nee buñ nee dalalaate mhm. ah. mhm. dalalaate moom yaatu rek la war mhm. euh, gan moom nee nañ dëkkul déedéet kon jar ta si kës kenn ndax yàggul te li ma waxoon rek wut yiw bu bu la kenn yàqal yiw effectivement te booy xool si kës nit ki sax mën na am jox nga ko mu lekk ba suuf berne nga ko mm-hmm. mais yaa ngi wàññi say yiw mm-hmm. yaa ngi wàññi yool ba nga waroon a am te mm-hmm. yëguloo ko donc nañuy nañuy sëgg fenetal di di di bàyyiwaat xel li tax màggal jóg yiw yi rek sëriñ bi dañoo bëgg dimbali rek mm, mais madame ñaa am na ñoo xamante si nii dañoo sikk de waaw man man man man gan gan yëpp awma ci benn problème xam nga ñan laa yërëm xale yi jigéen yi noo leen yërëm danañ maquillé wu. Mm. danañ sinap ah. danañ solu dinañ summeeku dinañ dugg dinañ génn ba bu ñibbee tooy. naa day màggalu ren nga damaa tooy fekk. <laughs> te dal tooy leen loolu leen tooy. togg nu yekk ñu. waaw mais màggal gi nag foog ñu sinap ko nag du ñu sinap. kon yow da nga ànd ak ñooñu. ah mais du ñu du ñu wane du ñu wane du ñu wane dressé bi. dressé bi ak ah, sa dressé bi foog ñu wane ko. foog ñu foog ñu màggal nag sinap moom ñu soxna soxna Koura loolu li nga la dressé yàlla na ko yàlla mosul jàmm. ah bëgg sëriñ Saliou. Eh. macha allah borom mbiri borom jàpp ndam borom doota. borom waaye eh. eh, madame madame Ñaande li mu wàcc ci xeeti vaisselle. Mm-hmm. ma nee naa nu may rëccee sama gàndak ba dem yër dressage. yow madame Ñaan ñu ngi lay nuyu. ma madame ñaan maam soxna Mbacke li mu wàcce ci xeeti vaisselle macha allah sa fan ñaan nga Kébémer tubaarkalla <laughs> euh, sëñ Massamba kooku soo ci duggee émission bi dama yaakaar ne day arrêté du arrêté nag ndax kooku du arrêté émission bi dama ko wax ci moom day gën a am ay sang yu baax macha allah ku ci mel ni soxna kaw lan ma dem Guèye soxna su Mbacke guy mbind guy mbind mm-hmm. soxna maam soxna Mbacke moom di dem ñaan dëgg la macha allah kooku dafa dafa am njariñ faris dafa am njariñ du nu boo ko waxee ca tëjoo bi dafay mel ni am njariñ poche. intérêt personnel. non am njariñ loolu am njariñ dafa vague am njariñ dafa yaatu. waaw xaalis sa fm waaw xaalis da nga koy may nit mu euh, lekk. yëg yëg waaw yëg nit mën nitam. waaw mën nitam mën nitam dafa yëg nitam bëgg borom këram. macha allah sës ko man daal maam soxna daal mention spéciale chapeau à toi une une grande dame. vraiment nit la boo xamante ni ca xale la nag xale la. mais maam soxna amatu fi mbàkk baal maa ngi nee naa la xale bu xale bu a bokk ki mag. Mhm. Mhm. xale amul xel mu man dama baax ay sang. macha allah man sang ñëpp baax. macha allah yal nañu yal nañu gën di baax kenn soxna Xadi Mbàkke moom. waaye seen gisaguma ko de si man. Oh. non maam maam soxna loolu moom. dama ma koy wax fii waaw sëñ Massamba mii laa bëgg. waaw mu xam yaay kan. ndax man damaa ñëw wax. Mm-hmm. bëgg naa nga jëf ci moom. incha allah incha allah maa ngi toog di ko xaar maam Soxna Mbacke. <laughs> tubaarkàlla macha allah madame Niane day ñëw madame Niane. borom parti Teranga Sénégal. nee naa la ba nga nee Sénégal la jeex ndax teranga Sénégal fii la fekk baax yëngu ci social macha allah jàmbaare ci lool mm-hmm. bu ñuy wax sa teranga Sénégal moom moo tax moom soxna Mbàkke moom soxna Mbàkke mi dëgg la moo tax ñu naan teraanga Sénégal. Mm-hmm. kon boog teraanga Sénégal duma leen sax Sénégal mais teraanga àdduna ngay doon. macha allah <laughs> alhamdulilah. loolu moom tawfeex la jërëjëf mais ngeen euh, bu da a bëgg participer ci li nga xamante ni mooy émission li ñuy dund mën ngeen def ci euh, ci numéro yi ci suuf écran bi ci 88 628 53 53 wala ngeen am ko tamit ci rajo bi ba tey rek yéen a mën nga fa mën ngeen fa jaarale. mais ku fa mën a mm-hmm. jaar rek di ñu am ci li nga xam ne mooy émission li ñuy dund parce que dañuy mm-hmm. soxla seen ak li nga xamante ne tey moom ngeen bëgg comme ni ñu ko mm. waxee rek nee naa leen Assalaamy TV euh, télé la boo xamante se nii li ko tax a jóg mooy askan bi en même temps mm-hmm. tamit dox ci li nga xam mooy jafe-jafe bi ak bëgg-bëgg askan bi loolu moom moo sabab li nga xamante mooy Assalaamy TV waaye si njàppandal gi nga xamante ni tey moom moo taxawal initiative bu rafet bi yu yaañ yi ngay gis mm. maanaam lépp rek di seen Gallas la nga xamante ne ndaanaan la jàmbaar la mm. tamit nekk ki nga xamante ni mooy jëwlin ci ki nga xam mooy Serigne Abbas Abdou Khadir Mbacke nga xamante ne wëllëreem xaritam di soppeem bi léppam xamante ne gis nga liggéey bu rafet bi nga xamante ne moom la nekk di ko liggéeyal mu nekk lu am solo nga xamante ne ngor rek mu am solo mhm. jàpp taw bàyyi mu am solo te olof képp koo xamante ne maanaam da nga nekk ci yoon mhm. taw jàpp taw bàyyi yàgg yàgg baag dina la fa mas a fekk la dundeek ba sëñ Bas Abdou nekk ko doyloo la ku ko mhm. ku ko respecté la ku ko bëgg la ku ko bàyyi xel la ndax lan yaram ak tegginam ak donte mag la kilifa la porte de voix la waaye dafa jël lépp daxañ ba mu baax jël ko jox ko ki nga xamante xamante ni moom mooy sëñ Bass Abdou Khadre di porte parole mm-hmm. yoonu murit nga xamante ne sëñ Gallas Sylla loolu la liggéey ak moom mm-hmm. mu nekk wëllëreem xaritam soppeem léppam kon boo yal na yàlla jàmmal ko comme ni nga ko waxee rek tàmbeedu mm-hmm. euh, gis nga gan yi ñi nga xamante ne ñi ngi waxtaan nañ ci ñi am ñuy dalal ñi ñuy dalalee seeni gan euh, am ñoo xamante dalal gi du rafet waaye ñi nga xamante ni tey maanaam dañoo baax ba da leen di jàppee ku dof ndax Tuuba am na ñoom dañuy dalal nit maanaam ba nga foog ne ñi sax dañoo dof rek ah, na seen mbaax seen oyof yow boo juumee tuuti rek ah. maanaam mën nga leen a sax ndax dafa amuñu ñu xamul tranga mm-hmm. boo leen teralee bu yàggee ñu ñu teg la dof loolu lan ngeen mën ci mën a parce que waaw soo xamul teraanga ku la teral nga teg ko dof dëgg la mais soo xamee teraanga ku la teral nga téye ko ak wér ndax da ngay xam ne li ci yow moo ne ci moom. effectivement mm-hmm. nga nuyu nag ku am solo léegi ci soxna sëñ Fallou Galassi la. ci mm-hmm. sëñ Bassirou Abdou Khadre. Mm-hmm. noonu la ko soxnaam fonkee muy soxna Oli Kébé. soxna ah, Oli Kébé ah waaw soxna ah, Oli <laughs> man soxna Oli de man woowu ma ba léegi. lu muy xaar lu xaar. Eh, de ma woo. <laughs> loolu Kébé Kébé jóge aali borom suuf seen ndox mi. wallaay dégg nga lii ah, la dem mel bi. Ah. <laughs> ñoom kuy suuf ak ndox ñooy borom. billaay Kébé jóge aali. maa la wax borom suuf seen ndox mi ah. ah. sama la sant. ah Kébé jóge aali borom ndox mi tubaarkàlla macha allah. waaw borom suuf seen ndox mi maa la dugal foofu. Eh, li mooy li nga wax rek. Mm-hmm. Eh, nit bu xamul teraanga ku ko mm-hmm. teral mu teg la dof. ak wér te ni góor ku ko teral yaa ko téye. Mm-hmm. ku kon nit bu lay teral si alalam si doole dooleem mm-hmm. si kattanam bu dëkk waaye bul ko teg dof mm-hmm. bul jéem a jaar ci kawam tamit di jàll jàpp ko comme comme def ko comme sa bopp mm-hmm. waaye nag dafa neexul nit ki nga xam ne xamul lii nga nga benn bis mu bëgg a ñëw nga nga nga def ko ko moom du ko xam ñàkk xam gi mooy soo xamul teraanga xamuloo dara soo amul yëg si nit yëguloo dara ndax teraanga doon loo xamante ni lu am solo la lu am solo am na solo lu am lu am solo la yar tamit ma boo amee yar da ngay am teraanga ndax soxna njaati mi loolu ëmb na ko ndax bi ma koy xam matut une semaine invitation bi daf ma ko yombalal macha allah ci yaram ak tegginam loolu moo tax ma gis ko ba bëgg ko ba doylu ba jël numéro kon loolu lépp dafa ca teraanga moo tax ma ma ma teral bi mu ñu doon teral di ñu toppatoo ndax toppatoon dafa bokk ci teraanga teral nit du caagéenu da ngay jël sa alal di ko jox wala dara mais massa ndax benn instant toog naa ndeysaan tànk yi xaw a metti ma jóg nga ne ma bi nga toog dafa metti da ngay da ngay da ngay jóg nga doxantu tuuti mm. changé ma siège bi ma toogoon mm-hmm. sëñ ma sàmba loolu loolu doon na loo xamante ni maanaam teraanga la wala xëy bu ma ko kon soo soo dajee ak tey bu doon da nga gàtt xëy da nga naan daf ma ko war a defal mukk ci àdduna dëgg la xam def daf ma ko war a defal li muy doon dafa xale ci ko naw am lu ma jàngaat ci moom ah. loolu mooy nit mhm. nit nit la mais nit ak nite la ñu wax mhm. Mhm. te bu nite dafa bokk ci jàng nit jàng ji koy nit xool nit ki man su ma demee si milieu loolu des fois damay déglu la ñuy wax de mais li sëpp damay nekk superviseur waaw waaw waaw man ci ëpp samay jotaay man noonu laay def damay damay am lu may xool damay am lu may seetlu ci nit ñi kenn ku nekk noo jàppe nit wala noo doxali man dama koy xam <laughs> macha allah kon euh, boo nekkee Touba nga xamante ni loolu lépp dañ koy dëkk Touba mmh. dafa war sax ci nit ñëpp mais ku dëkk Touba daf ci raw yar lañ ko xamee teggin nañ ko xamee sutura lañ ko xamee yëg lañ ko xamee mmh. teral leerte loolu lañ ko xamee mooy adresse waa ku dëkk Touba mmh. nday sant nañu baax même bu dul màggal des dañ lay jox lekk bu nga tiit di la forcer bu ñuy añ dañ lay woo di la woo bu ñu lay nuyu sax. Mm. yow soo gàttee xel tuut da ngay dagg nuyoo parce que da nga damaa sonn parce que seen nuyoo du am. arrêt dañoo dañoo bëri maslaa dañuy nuyoo du am arrêt im <laughs> na laay im na laay dañ lay topp. topp topp topp suñu àndee dox mm-hmm. jóge ci kër ga dem place ba. Mm-hmm. moom damay damay ñëw fekk mu toog bu yàgg ma ne ko waaye yow xanaa mm-hmm. ànd ñu mu ne ma yow foo taxaw nuyoo. lay ndeysaan yéen a ngi nuyoo di nuyoo man nag ñëw naa damaa sonn. ndeysaan ndeysaan <laughs> ndeysaan. waaye ndeysaan Touba dañoo baax. dañoo baax dañu bëgg nit. nuyu te waxoo ko santam bu ëllëgee da lay mere da lay laaj sax yoonoo sant. noo sant nga wax ko ngeen jàmm sant. waaw dañuy am jot ndeysaan. souvent nag mbokk ca lay feeñee. ndax bu nee la noo sant nga ni Ndiaye ne ah loo bëgg ak diw nga ne ah diw nangam ñu téye la waaw. de ce fait a xamante. dogguma la ci loolu man am na ñu ma jàkkaarlool ñoo xamante ni ndeysaan bi ñu may doo gis. saa yi ma rombee di ma mbàkke benn bis dama wóole man de man de saf naa ci sàpp mais ma ko. sant ma ko laa sant kenn ki toog ci suuf. léegi moom tamit tàmbeedu la sant ñoo xoolal loolu beneen xale ba yaayam tàmbali la sant ñoo bokk cosaan xoolal loolu ba léegi ni daanaka man lu may def lu wala lu ma soxla lu ci ëpp ñoom ñoo ma koy defal te noo sant moo indi loolu dëgg la noo sant suñ la ko waxee rek wax li nga mais ne laaj ni ma bi am itte waaw nañu changé waat jikko yi daal fas yéene màggal màggal goo xamante ni incha allahu rabbi yàlla teg ñëpp si jàmm ñëpp ñëw si jàmm dellu si jàmm fekk fi ñëpp tamit si jàmm ca yàlla mu doon suñ mujjante suñu màggal ci kàttanu en tout cas daal li ci ëpp solo ba am solo mooy euh, sa madame Niang mhm. soxna Tambédou mhm. mooy euh, àdduna mhm. Sénégal fii dafa xat dafa xat te maam Abdou Aziz Sy Dabakh radiallahu taala anhu dafa ne képp ko nuyu jox ko sa loxo <clears throat> mu ne la sant ba nga ne ko sant ba nangam la mu ne nang mu jéem dugg ci lan nga sant fan nga bokk loolu ci sa loxo xam ne naafiq la ndax sant insisté dëgg la sant insisté wul de. Mm-hmm. maanaam li insisté mooy tur bu baax te sell. macha te yàlla xamul sant xamul askan xamul dara xamul lu mu xam ko ko yëg ku baax. Mm-hmm. ak ku jullite. Mm-hmm. dëgg la waaw ku am diine. moom yàlla loolu loolu la soxla. mais soxlawul ay sant wala nangam. wala lii wala lee lépp solo mooy. nit ki na jub. te yéene nit ñi jàmm. te jàpp ne lépp lu la nit mën a defal. Mm-hmm. bul jàpp ne kii dafa wane far force moo tax moo parce que tey teranga bi la tey jii soxna Njaata Njaay defal. ah mm-hmm. maanaam teranga boobu noonu. tey bu doon am na ñoo xamante boo leen ko defalee dan ah. dama ko dama ko mérité. Mm-hmm. te ah, or que demeewul noonu. parce que kenn gënul kenn ki gën si nit ñi mooy ki nga xamante si ni tey moom moom mm-hmm. la yàlla gërëm. Mm-hmm. dëgg la ah ku la ëpp diine gën ëpp la kii moo la gën. fii kenn gënul kenn. li ñu gënee nit ñi si xol yi la. Sénégal gi benn bopp la tey su ma waxtaan ak yow tuuti rek. dinañ am fu ñu bokk. yow ma waxtaan ak yow tuuti rek ñu am fu ñu bokk. ñun ñoo bokk yem ci fii ci Sénégal moo tax ma naan Cheikh Ahmadou Bamba dëkkul France <laughs> <laughs> dëkk France. Mm. amuñu ko. déedéet amuñu France lu muy rëy rëy lu muy riis riis mm-hmm. amuñu Seex Ahmadou Bamba. déedéet fii la tëdd di nelaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal gi moom fii la sëñ Abdou Ahmadou Bamba tëdd di nelaw. fii la El Hadj Abdoulaye tëdd di nelaw. fii la maam El Hadj Malick tëdd di nelaw. fii la Seydina Limaamu Al Mahdi tëdd di nelaw. la nga xamante ne fii la seex na Cheikh Saad bu jaar seexal ñi fi war a seexal. ñi fi seexal tëdd di nelaw. maam Omar Ndar Seck et cetera kon Sénégal gii. maanaam ñun amuñu ay étages yu ne dong ba ca kaw. Mhm. amuñu dëkk yu rafet waaye am nañ si Ahmadou Bamba. Mhm. am mel ni ku am mel ni ko fam ku nekk si ligne bi. Mhm. salaamaaleykum. bu dee dugg si na rek ñu jël ko. salaamaaleykum. allo waaw kebe ñu nga aale <laughs> kebe ñu nga aale mbay kooku sama yaay la ndeysaan yaa booy ñu ngi lay nuyu maa ngi lay dégg kebe ndeysaan <laughs> réseau bi la te ndeysaan xër xër rek xër la xër la ndeysaan du ma bëgg di def dara te du ma ko wax te di laa ko fëgg waaw waajur dafa am solo waxtu ko mhm. tëdd ba mu yàgg mu yónni sama tout tànk bi ne ma. Mhm. ndax wax nga ko kër. Mhm. ma ne ko waaw mu ne ma léppay baax. incha allah yal na ko yàlla dolli wér. Mhm. amiin amiin amiin bàyyi ko ci suñu kanam ak. allahumma amiin allahumma amiin macha allah xam naa ne kooku suñu yaay la suñu mhm. waajur bu jigéen di wax mhm. rek euh, ba tey mi ngi si ligne bi mën ngeen def 88 628 20 53 53 bu ko defee rek ko dugg rek euh, ñu daal di lay jël rapidement euh, mhm. laata ñuy woyal waxtaan bi fii ci Assalaamy TV comme ni nga ko fa faral di waxee salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum ndeysaan salaamaaleykum xam naa day am problème mu réseau. Mm. wala mu nekk tamit ci mm. euh, technique bi. peut-être euh, Habib ngi koy gis xam naa ne. Mm. Euh, dina ko régler léegi bu ko defee auditeurs yi nga xamante ne wala téléspectateurs yi seetaan. mën a participer ci li nga xamante ne moom mooy émission li ñuy dund ñuy waxtaan wàccaay màggal. ku ne wàccaay màggal nag lu mu ëmb bëri na. lu mu lu mu lu mu lii tamit bëri na waaye tamit da ngay xool ci màggal gi. Mm-hmm. dasi am ay jafe-jafe ndox. Mm-hmm. ndoxu naan. Mm-hmm. waaw parce boo xoolee màggal gi. ndoxu naan gi day xaw a jafe torop torop mhm. torop ci mhm. yenn secteurs yi loolu tamit euh, ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy autorités yi ak ñi nga xamante ni tey ñoom lay yàlla dénk loolu mhm. salaamaaleykum salaamaaleykum naa def soxna si allo doon wax. wallaay ndeysaan ñu ngi lay dégg bu baax. <laughs> wallaay ndeysaan xam naa ne problème. bu waa euh, technique la euh, mhm. xam naa dinañ ko régler léegi incha mhm. allah. Euh, di wax rek ndeysaan ñi ngi jéggalu bu baax a baax ci ñàkk dugg bi noonu mhm. jafe-jafe ci ligne bi la waaye comme ni ko baaxoo di waxee rek man ngeen ko am ci YouTube bi aussi tamit en direct. li nga xamante ni moom mooy Assalaamy TV yeneen ko ci seetaan bu baax a baax. à travers suñu techniciens yi euh, ba tax na ñeneen koy am euh, mën ngeen ko jaarale foofu tamit tamit mën ngeen a woote tamit ci euh, li nga xamante mooy 88 628 53 53. ba tax ne sama retour dafa bëri trop Habib <laughs> sama retour <laughs> damay déggaat sama bopp bu baax a baax. <laughs> problème technique la. voilà. lu mu gën a wàññeeku foofu rek gën a baax waaw jërëjëf waaw waaw kay mi ngi normal <laughs> mi ngi baax mi ngi baax <laughs> comme ni ko gars yi di waxee mi ngi baax. <laughs> Eh, mi ngi baax tamit terme bu am solo la de. mi ngi baax moo gën mi ngi baax dafa gën lépp. dafa gën lépp. mi ngi baax moom macha allah. ak bi ci des kontaan continuer. kontaan waaw. continuer mer maîtriser. waaw wax ni mer maîtriser. <laughs> a jafe mooy mer ba a ak a jafe. mais kontaan continuer. Mhm. ak a wér ak mer maîtriser bu gën a posé. non ñaar yëpp am sa continuer kontaan bi. mooy mbégte mu dul jeex. maanaam du ko mel na solo. waaw waaw lii boobu mooy boobu mooy bu garaaw bi. moo garaaw mais maîtriser am def ko xeet bu dul jeex. waaw bu dul jeex non dama koy toog mais maîtriser. dafa am hmm. xam nga baax. waaw xam nga terme yooyu. gars yi dañ di ci di ci di ci kii tamit euh, terme yu Pastef la la mi ngi baax ngi baax. waaw mi ngi baax baax mi ngi Pastef wu. bu baax. Ah, waaw ni ngi murite. baa mi ngi murite. baa mi ngi murite. Ah. lu murite day baax lu murite day day day Pastef <laughs> day Pastef wu. xool da ngeen murite rek da a murite. a ngi murite ba bëgg a dee. xoolal murite sama ñaari ji ah ngi mérité. Ah, ah, waaw mi ngi mi ngi baax mi ngi baax mi ngi baax mi ngi gën. waaw baax mi ngi gën waaw <laughs> ma doogee ñëw dama bëggoon charrette ba may doog a ñëw Touba mu duggee ma toog gars ne yokku leen ma ni ah, teg yokku leen ma ni teg suñ jumaa jaa ngi mi ngi bëri teg <laughs> ngi baax soro bi ci Arafat hmm? juróom borom juróom ñaari soro li wallaahi wallaahi ndeysaan moom wallaahi kenn du moom yàlla nañu ko yàlla fayal. laay ñaanam nga dal na. Mm. macha may mm. ma jumaa joo xamante ne nii euh, maanaam day yéem àdduna. dañ koy mm-hmm. dégg fu ne ngi nii. ku xool ci moom rek da ngay daal di indi mer moowu mer maîtrisé. mer maîtrisé ah. ki ñëw ne baal naa bi. Ah, waaw ñëw ni baal naa ñëpp mer na mais maîtrisé na ko te jéggal na leen. kon ñu ngi baax noonu njëkk ak yu mujj. ñu ngi ba ah ak sëñ Bamba kenn moom kenn moom tey bu doon al la ay bu doon man dem naa ñëw naa léegi nag samay noonu laa ba ma xëgalu ko tam taxaw yéen sama noonu waaw sama noonu yi woon du am <laughs> Ah, sëñ ah, hmm. ah, Bamba kenn du moom. kenn du moom ba pare wan àdduna. waaw jàngal ñu keneen ku mu doonoon ci kaw bopp moom ngay taxaw. moom de. nee de àdduna képp ku ci am bànneex bu toll ni kaasu ataaya seytaane moom na la. dëgg la. te Ahmadou Bamba wax loolu. ku ci am si do ku ci am bànneex bu toll ni kaasu ataaya seytaane moom la moom na la. est-ce lépp ay ay ay ay jaar parce que adduna coono la bànneex moo fi amul yàlla wàcceew fi lu mat. ka wér. 100 pour cent amul fii. mooy ñëw ci li sëñ Mountakha wax. Mhm. baax sonn. bon sonn. bon sonn kon baaxal. kon baaxal ñooya. Ah, a wér. ak a wér ak ah? dafa metti. may bandi dafa metti bànneex amu fi. wax na dëgg. lu fi neex bariwut ci àddina ndax tey jii yàlla bu la joxee bànneexu àdduna looy wut àjjana. ak wér. dara doo wut sa àjjana. dara maanaam doo ko wut fii. déedéet ndax am nga àjjana déjà fii ba pare. wallaay doo doo fàttaliku sax ni la a ñaari yoon. Mhm. gis nga tey jii maanaam comme ni ñuy wax rek. Mhm. maanaam li fi baax li fi baax ah. Mhm. mi ngi fii mais yàlla amul lu bon. ak mais lu bon a fi ne. mais yàlla amul lu bon. ndeysaan moom la Thione mais ci ñi nga xamante si ni tey. moo fi nekk. mooy cent pour cent. yàlla wàccee ko ci àddina mm-hmm. te ma yërmandeem yi mu am bari na bari goo xam ne benn rek la wàcce ci Sénégal mm-hmm. la a ah, wàcce si àdduna boobu maanaam damaa bëgg Sénégal ba naan Sénégal wallaay Sénégal Sénégal dama la bëggoon yóbbu Italie mais daf koy ah? bëgg Sénégal foo dama la doon yóbbu Italie mais non day dem di ñëw Italie damay dem damay dem damay dem xooli xool soppe yi a xarit i waaw ku ci mel ni bànji si la ah bëgg naa dem de bëgg naa dem de bànji am naa lu jafe nag mhm. muy passeport <laughs> xamoo ni nga ko waxee sax xamoo ko <laughs> dëkk bii. Ah? kayite gën a jafe. billaahi carte d'identité passeport. boo ko doon da ngay. xam nga gën a jafe a passeport bi dafa yomb léegi. non sama passeport dama ci sonn de. parce numéro lañ lañ jaayoon sama numéro dañ koo jaayoon. ñu dugal sama kayit affaire bi rejeté ko ndekete kii am sama kayit moom. mooy am na ci passeport ba pare. li ma daj. yow yow gis nga dañ nga lu mburu dajul ci taal. dafa metti mais malheureusement. Mhm. waa Daaf maa ngi leen di nuyu. macha allah ku ci mel ni euh, Moussa Dia. Mhm. macha allah dëkk Thiès ak ki mhm. nga xamante moo nekk bureau de passeport. Euh, police jëppal euh, di Moussa Bey. Mm-hmm. ñooñu ñoo ma jàppale mm-hmm. ay policiers yoo xamante si nii yu ma mm-hmm. bëgg lañ jàppale ma taxaw ma génneel ma sama passeport te fayu ma ak commissaire Touré macha allah Touré macha allah baax lañ man ma taxaw la ñoo xam ne dañoo baax dañu baax seen liggéey ba pare bëgg tey nit ku nekk si jafe-jafe ñu taxawu la bañ ñoom seen liggéey am faay nuyu force armée bi yëpp ñu leen nuyu bu baax a baax a baax macha allah ñu baax la waaye daal tàmbir lu mat yàlla wàccee ko Sénégal wàccee ko àdduna mhm. léegi li am solo mooy maanaam tey tey lu ma manqué rek mhm. loo lu ma manqué am mën nga ma ko mottali mhm. man mhm. yow li nga manqué mën naa la ko mottali jaaki moom it madame ñaa tamit c'est tax loo bari la bari boo di nga romb loo moomu te kenn jaay te kenn taxul ko ñu ngi koy jaay déedéet <laughs> da ngay romb dem ak ak wér euh, doguma la sëñ ma sàmb déglu woon benn ki ndeysaan ñun sëñ Sall moo ko waxoon yal na yàlla yokk leeram tam si barkeem mul ni bul ni nit amuluma njariñ da nga naan amaluguma njariñ. amaluguma njariñ à tout moment nit ki. Mhm. mën na la amal njariñ. ah waaw moo tax doo ni nit amaluma njariñ. Mhm. am na ñu koy wax nit amaluma man lu sama lu ma mënal amaluma benn njariñ. ak man sama bopp rek laay topp. Mhm. waaw man sama bopp laay topp dafa doy sama mag bi maa ngi koy nuyu Aliou Ndiaye danaan nit doo doo gëm sa bopp. yàlla ngay gëm. chaque jour danaan nit warta gëm boppam. nit yàlla ngay gëm. la yàlla jërë gëm. waaye nit dafa war a xam boppam. Hmm, waaw nit boppam la war a xam gëm yàlla. waaw hmm. chaque jour loolu da wax muy wax bu am solo. am na solo am na solo. xam ni boo hmm. jox lu bëree bëri bëri. jàngat jàngat la xam nga yàlla moom maanaam dafa bëgg borom xel. parce que suñu borom maanaam bu la bindee nga doon nit. li si des nit da nga koy mottali. Mhm. dëgg la maanaam nit da ngay cenc maaye yàlla daf la kuy cenc maaye. Mhm. Mhm. ndax yàlla nante la. dëgg la suñu borom. dégg-dégg la. moo tax mu ne dégg-dégg laay waxal. waxin la nag. ñu am dégg-dégg wax nga ko sax si alxuraanu karima. macha allah borom xel yi yéen laay waxal. borom xel yi yéen borom xel yi. ñan la mooy ñi nga xamante ni tey da ngay gis tey benn silmaxa buy dem. nga ne kii dafa gumba gumba de xam nga kan moo gumba. Mhm. mooy ki duy dox ci mbedd gis luy lore te teggi woo ko romb ko dem yow yaa gumba. ak mhm. wér. kii ay bëtam dafa sëgg. waaw kii dafa muuru rek. Mhm, dëgg la bët yee muuru rek mais am na ñuy xool te duñu gis. am na am na ñuy déglu te duñu dégg. te duñu dégg. <laughs> ak wér. voilà te yàlla manqué wu leen dara ci ñoom. jëm ci ñoom. moo tax suñu borom nag maanaam àdduna bi boo fi nekkee foog nga sonn. dëgg la ndax àjjana amul coono. déedéet kon li ñu war a dundee ajana bu ñu ko yàlla wàccalee fii ci àddina bi di dund bànneex di dund dans sans sans bopp bi metti sans biir biy metti <laughs> sans tànk yu ruux. ah sans sans coono sans bërëng yi. te wax nañ ne ah. nee nañ jullit bu toog dara ajjana dafa war a tiit. dafa war a loolu a tiit. Mm-hmm. te xam moom danga naan ana maam yàlla. Mm-hmm. nee nañ yàlla su la bëggee lool. Mm-hmm. léeg mu jox la ay tolom tolom ay jafe ñàkk nga nekk ay xat-xat. di la natt di xam sa gëm-gëm fu mu loolu yëpp. mooy coono àddina gi ñuy wax rek ci ñuy waxtaana rek ndeysaan sëñ Touba Cheikhul Khadim mm-hmm. loolu jafe-jafe yooyu la amoon ci xool nga ni mu ko muñee ba mm-hmm. sëriñ yàlla suñu borom teggil ko ko mm-hmm. kon maanaam dama naan sax bépp jullit bu mu war a doon rek war nga jàng muñ waaye nag dafa raw murit ndax murit moom ki nga xamante ni moom la topp bëgg ko wóolu ko muy Serigne Touba Cheikhul Khadim ku ne xam nga jaar jaaram kon soo nekkee murid ba pare lu dikk rek met ci yow waajuram bu sell ba waaw lu dikk mu met ci loolu tamit say murid da mën naan dafay des mm-hmm. dafay des liggéey dafa liggéey mm-hmm. mm-hmm. dafa liggéey waaye euh, maanaam euh, comme ni ñu ko waxee rek euh, xam naa ne tànk dañoo amoon problème mu jafe-jafe ci ligne bi bu fekkee jàppandi na rek ñi ngi seetaan mën ngeen a def ci 88 628 53 euh, 53 euh, bi ngi noonu ci suuf écran bi ñuy waxtaanee li ñuy dund. Mhm. gis ngeen nga tey euh, sama ñaari gan yi am solo yi mhm. yaa yi ngeen di gis. Mhm. macha allah ñu nekk tamit ay waxtaankat yu am solo. ñoo xamante dañuy développé ci lu bëree bari bari bari. loolu tamit mu nekk lu am solo borom xel yi sell borom xol yu rafet. nga xamante ne lu baax rek lañ xam. wax lu baax jëf lu baax doxin lu baax. solin bu baax mhm. ñoom ci lañ nekk ba tax na loolu am na solo trop mhm. euh, mi ngi noonu euh, li ñuy dund waaye tàmbeedu mhm. tey da ngay gis tey ci biir màggal gi ci wàccaay gan gi ba léegi ñu ngi ci wàccaay gan yi mais nga xool ñaan ñu bokk jëkkër mais ci biir kër gi tànnaas lay doon ku jege ci ci màggal gi ci màggal gi ku jege defante gi mm. loolu tamit gars yi war nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax mm. waaw loolu yow seen feem affaire la wax waaw suñuy feem la waaw mais nag doon na loo xamante ni yaakaar naa lu ñu defante defante mm-hmm. euh, ba màggal ñëw war nañoo teg lépp dëgg la ndax dañ ni gan mën nga ko teral lu ne ci àdduna ba des xool ak déglu ak wér mu ngi ma des waat rek ci keroog bu ma la gisee mm-hmm. samay bët laa yor di xool samay nopp laa yor di déglu. dëgg la xam nga mënoo ma ko tere. ndax yëgu woon ni sama ngi koy def. Euh, tamit noonu la demee si ñi nga xamante ni dañuy nekk si kër yi. Mhm. jikko boo mën a am ak lu mën a xew. mais ma tuuti ma jël kooku. salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum mbokk mi. xam naa dafa am problème mu waa réseau. peut-être euh, mën nga dikkaat ci 88 628 20 55 53 53 bu ko defee am na keneen ku nekk ci bunt bi salaamaaleykum salaamaaleykum Guèye Salam Couture maa ngi lay nuyu sama xarit maa ngi lay jaale sa baay bu baax bi macha allah. yàlla yàlla yërëm ko. sama xarit la. salaamaaleykum xam naa ne euh, dañoo am problème mu dégg-dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, tamit yaa ngi woon ci point bu am solo ci ñaar ñi nga xamante ni ñoo bokk jëkkër. Mm-hmm. màggal gi jot ñu nekk fa di pàcc pàcc lu nañu dugg ci. di di xiiroo ak di lu nañu dugg ci. dama gis ndeysaan euh, soxna Kurelo mu yónnee ma message bu am solo di nuyu lu Serigne Fallou Fall. ak waajuram soxna Mbène Ndiaye nekk wa Italie. te xam naa sëñ Massamba moom bu déggee tur Italie bi day daal soxna Mbène maa ngi lay nuyu. soxna Mbène maa ngi lay nuyu encore une ngi lay nuyu. bett bool eh, soxna soxna Koura ndeysaan nuyoo bi jàll neen ko muy soxna Koura Lo mu Serigne Saliou saa su nekk dafay dugg di xam naa boo demoon sami ngi doon jéem a ko soxna Koura Lo loolu daan firé soxna Koura nuyu naa la. soxna Koura Lo soxna Mbène Ndiaye ak sëñ Fall jànkas xasida doom nekk fii waaw ñëwoon seen kuréel ñëpp xaj na ci kooku géej la loolu ndaam kooku géej ñëpp xaj na ci mhm. allo allo wala dafa rëcc daa dem <laughs> dafa dem dafa waaw <laughs> macha allah 88 628 53 53. loolu mooy jaarukaay bi mën ngeen fa jaar euh, ngeen koy am euh, direct si li nga xamante si ni moom mooy ci YouTube bi di ko am tamit ci li nga xam moom mooy si box yi nga xamante ne moom lañ jox à travers réseau yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, biir réew mi. Mhm. en même temps tamit ngeen koy am tamit ci rajo bi si 99 point 0 ci Touba Mbacke ak li ko wër. <laughs> mën ngeen ko jàpp ci foofu noonu ngeen partagé ko partagé leen li nga xamante si ni moom mooy lien bi. Mhm. ko defee ku nekk mën ko jox. ko euh, sa mbokk mu mën na seetaan. Mm-hmm. Euh, partage bi yomb na buñ la ko envoyé rek da ngay jël cliquer. ah euh, envoyé mu dem bu ko defee ñëpp mën ko am ci li nga xamante si ni moom mooy ci youtube bi am ko mm. tamit ci li nga di commentaire yi aussi tamit bu leen ko fàtte bu leen fàtte j'aime euh, yi aussi tamit euh, euh, may ñu ay cœur mm-hmm. parce a mm-hmm. sama gars yi yaa ngi woon fan nga ne si soxna kuroloo soxna soxna Mbène Ndiaye depuis Italie mm-hmm. yaay Serigne Fallou Mbène Ndiaye nuyu naa la waaw ma nga ba Italie macha allah ma jaare fari nuyu sama mbokk yi nekk Italie yëpp sama dëkkandoo yi Caserta Napoli Salerno Benevento toppatoo macha allah ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu rawatina bànji si la mi nga xamante ni moom nee na bi moom mooy léppam léegi day war a jaay sax ne day toog nee na tur bi waaw tur bi moo ko njëkk a a allah kon ñu nuyu ñëpp di leen nuyu soxna Koura macha allah nuyu nañ sëñ Cheikh mu sëriñ Saliou di nuyu doomam ja sëriñ Abo Mbacke ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàcc waayam di nuyu nag képp koo xamante ni rek yaa ngi déglu tey télé bi mhm. wala ngay déglu rajo bi wala nga ñuy seetaan mhm. di sàkku ci yow ñaan nag macha allah di ñaanal ñëpp jàmm ak sutura euh, loolu dafa doon loo xamante ni sëñ sàmba mhm. dafa bokk si nitoo di ko gis nga nit su nitee lu ko naqari gan mën na ko bañ a xam rawatina ci période bi ñu nekk muy période màggal période mbégte. Mhm. soo gi seetloo yeneen vidéo yi ngay seetaan tiktok bi. waaw yoonu murit kese la waaw <laughs> murit àjjana lay dund. murit àjjana lay dund. jàmm la joie. ah, ah ñun est eh, ce eh, que ñu génn clip. Ah. ñun nañ génn clip. <laughs> waaw gis nga ko kon mbégte warul ànd ak mer warul ànd ak fu ñu fu ñu warul ànd ak defante. ndax maanaam ñi ñëw moom sa defante mën nañ ko bañ a xam. ak wér ndax jote woog ñoom dara. déedéet. te su nekkente ne da nga am boroom kër ndeysaan mën di fa ay nit ay defante ak ñi ngay sa wujju ngay wane yenn comportement yi am yenn kanam yi. Mhm. moom ci boppam moom ngay gàcceel. dëgg ba pare ñi ñëw tamit dañ lay yóbbu. Mhm. te defe naa ne wujje jarul loolu. déedéet. sooy wujje di wujje ba bis teew fàtteel ku jëga Mhm. soo paree nag après bu la neexee nga continuer waat su la neexee tamit nga mën nga ko bàyyi war a jaaree bàyyi ko nga bàyyi ko ndax jaru ko ma ne ko surtout ça <laughs> waaw jaru ko jaru ko <laughs> murid di meer waaye rawatina jigéenu murid <laughs> ndeysaan ah, daa yaa ñi waaw moom gis nga day reere euh, euh, na ñëpp roy ci moom bu ñii ñii bu ñuy màggal ñii di raas déer ñiy màggal ak ñiy raas jéem bokkul ak wér màggal ak ñiy raas jéem mm-hmm. bokkul mm-hmm. Euh, ci kujje gi laay wax di jaar foofu di nuyu sama aw buuru këram mm-hmm. jaaxo njaay eh, sama doom baay la ndax ñun macha allah Cheikh Basirou Niang sama borom kër dafa def Cheikh bëgg na <laughs> jigéen dafa sant njaay aawa njaay ñaareel njaay Sénégal njaay <laughs> Touba de laa xamul ndax war naa mën a sant Ndiaye. sant Touba moom Mbacke la sant moom. Touba moom bu leen fii xam ne lépp dëgg la. njóobeen yi euh, moom ba ci defante loolu bopp bu bopp xam nga man ma nekk ñaareel. Mhm. am bu baax bu ma uufal sunu goro bee. moo ma mën a ñëw fii. Mhm. danoo war a muus. Mhm. nit nite googu dañu war a muus. gis nga képp koo gis def ko ni sa bopp. Mm-hmm. xiiroo ngaayoo mën na caa ñàkk. Mm-hmm. rawatina ku la yàlla booleel nga bokk ak moom boroom kër. Mm-hmm. bokk ak moom ay njaboot. ndax njaboot gi moom benn sant la ñuy uyoo. bokk. te ñoo ko bokk kenn mënu ko dindi benn geño muy lu am solo. donc xëy na màggal gi dafa ñëw rek ñu laaxale ko. waaye dundun gi noonu la war a mel. yaatal yaatu. kontaan continuer boobu. warul yam rek mer maîtriser warul mm-hmm. yam rek ci màggal. ak si wax rek nañ ko jëfee. nañ ko jëfee. Mm-hmm. buñ ko doon jëfee ku nekk nga jàpp ko ni sa bopp rek du metti waxuma la màggal waaye gàmmoo appel ak lépp day fekk ñëpp ci jaam. day nekk si jaam mi ngi doon mm-hmm. loolu daal ma Massamba jàpp naa ne buñ ko doxalee noonu te jëfe ko. Euh, du metti raaskatu déemi nag. raskatu déem yi moom li ñuy wax mooy mooy yal nañu yàlla musal ci ñoom. dañuy yàq màggal te suñu boroom soppi leen. allahumma amiin waaye mën nañu yàq màggal bi ñoom seen bopp la ñuy yàqal. nee ndeysaan dañuy découragé nit ki ndax ku ñëw di màggal tamit. ah ñu jël mm-hmm. téléphone mu découragé. Mm-hmm. kooku bëggatul dara ci màggal gi. wax bu la ko waxee ak su la ko waxul ko waxee ak su la ko waxul. Mm-hmm. et puis teg na gàcce ñam fa fekk. Mm. ndax du ñu xam ñan la. xam kan la. donc ñay raas jëm yal nañu yàlla musal ci ñoom yàlla yàlla natt na nga njaboot gu góor gu ne ci wallaahi yal na leen yàlla soppi. waaye raas jëm bi waxuma la màggal waaye ñu nga fépp. waaw dafay màggal nag man ci dañuy gën a rakkaay. ci dañuy màggal si. ci sëñ Tuubaa moo te nag sëñ mbaam Bamba woote de ñëppay ñëw ñëppay ñëw ñooy waaye tamit uh, ñi ngi alerte uh, ñi ngi alerté ñi nga xamante ni maanaam ñoom it dañuy uh, rey ba pare jël ko sànni ko ci récolte wala ñu jël ko di ko lii wala ñu gas pax ci yoon yi. wallaahi yooyu tamit. Euh, c'est à éviter loolu yow ci éviter. c'est à éviter ci service. Mm-hmm. nit mën na dawal ba dugg ci pax moomu pax bi boo ko gasee ci yoon war nga mm-hmm. war a mën a am loo ko couvrir. Mm-hmm. wala nga gas ko foo xamante si da ngay bàyyi espace. parce que nit ki bul ne man ak nit bul ne man bul man. man lu ma neex lay def bu ñu def lu la neex. am lu la naqare rek waaw parce que loolu loolu doxul parce que ñu ñëpp ñoo bokk mbir mi. te la olof dafay wax lu ñëpp bokk lu ne ku ne nga ca. ak kon boog maanaam nit ku nekk maanaam bi nga xamante si nii maanaam yow yow nga yow yaa reen li say affaire dajale say mbari war nga defar ba mu baax am foo ko teg foo xamante si ni yow bu oto bi ñëwee nga mën ko fay mu jël ko yow mais pas nga pare rek nga sànni ci mbedd bi ñii def ñii ñii loolu tamit dafa bokk ci war maay màggal gi ci war maay màggal bi bokk ci dundin bi bokk na tamit war ngeen si wax de c'est dama nag tamit aawee wala ñaari ñoo koy def ñooy def loolu jigéen ñi yow jigéen xam nga xam nga kër lu fa lu fa baax ñu ne jigéen. lu fa sikkit ñu ne jigéen. tey jigéen kon ñun la rek. Mhm. awa ñaareel ñetteel daal jigéen. jigéen. donc mhm. nañ leen gën a ñaaxaat rek ñu gën a rafetal dundin bi. Mhm. Ah, defaraat toogaay yi bu baax. macha allah macha allah am na solo. loolu moom wax dëgg si yàlla nañ si bàyyi xel bu baax. tàmbali ndax nit ki boo refalee li ngay def ba pare. lu gën a bon nag satum ginaar waaw. set ci biti tax ci biir. tax ci biir ak bëri ci jigéen ñi. yàlla boo def li ngeen def ba pare seen i affaire yooyu noonu mën ngeen a gas ba mu xóot ngeen. <laughs> suur ko ba mu rafet fing. Mm-hmm. mu maase rafet mm-hmm. mais da gis ko am day jël affaire am sànni fële. Mm-hmm. en même temps ñi nga xamante ni maanaam xamuñu ñoom fu ñu war a toog jaayee ak fu ñu warta a dëgg la territoire yii dañ ko war di moytu di teg ci seen i njaay parce que oto wóorul. suñ sori bu ñuy jaay nañ dem ca marché ba mhm. kuy jënd dem ca marché ba lépp ñu teg ko ci organisation bu baax mhm. Mhm. mais imagine toi tey nga jël foo xamante da lay leer ne fii yow nga wala nga gis koo xam day jël otoom gaare ko foo xamante ne oto du dem oto du dëgg waxante dëgg tamit classe na nga tëdd nelaw ah, waaw gis nga nit embouteillage yu bëri loolu moo ko indi da ngay xool li xam moo correct moo jaar yoon nga nekk parce dëkk du benn nit mooy defar. ñëpp ci war a jàpp ñëpp ci war a ku ci nekk da nga war a xool li nga xamante ni tey moo rafet. li lii mm. su ma ko defee kat ma baa ma gënee nit da ngay sóoraale nit. mais bul topp sa bopp rek. loolu dafay bokk ci nit parce que topp sa bopp musiba la. Mm-hmm. la parce que su boobaa doo calculer ci kenn. loolu tamit àq la te àq mm-hmm. dafa sew. Mm-hmm. dañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Euh, di wax rek comme ni ñu ko waxee rek euh, tàmbeedu. waaw xam naa li nga wax ni moom macha allah sama mbokk. jegeel bi tuuti mbokk takk der yi nga xamante ni ñoom laa dëkkal ku ci mel ni Baye Fall ma borom këru musu keebaa musu mu baax moom ndeysaan. waaw borom ceebu yàpp waaw waaw waaw dégg nga lii bu neex lay togg ak moom mi wax ah. dee nii sàmbeen yee a a a sumi te tey nga sumee du dese dara tey jii tamit ñu ngi décoré tey jii ngi inauguré ñu ngi inauguré euh, stade euh, municipal bu Kébémer bu Issa Mbaye Samb. macha allah Issa nga mhm. xamante ne ñëpp xam nañ ko ci ministre sport ministre de santé. Mhm. nga xamante ne moom moo moom moo fa nekkoon yàlla def mu génn àdduna. Mhm. pour Ablaye Wade. moom it euh, tey la ñuy inauguré li nga xamante ni moom mooy stade ba foofu noonu ci teewaayu monsieur maire Alaaji Mamadou Lamine Thiam maire député. ak mbooleem autorités yi nekk foofu noonu yëpp. tey jii lañ koy def foofu noonu ci nga xam ne moom mooy Kébémer ñuy war a inauguré bi bi war a waajal li nga xamante ne moom mooy seen fo moomu di newetaan hmm. di wax rek macha allah maa ngi leen nuyu au passage bu baax a baax waa Kébémer hmm. di wax rek tey waroon naa cee teew mais tamit euh, weesuwul ndax hmm. euh, lu mu guddi guddi guddi guddi incha allah rabbi Kébémer euh, dinaa teew teewee li nga xamante ne moom moo inauguration bu am solo boobu ah di jaajëfal tamit bu baax a baax kooku di sama sama xarit alaaji Abdou Ndiaye Po le grand réparateur de ordinateur macha allah ay machine macha loolu mooy liggéeyam mhm. macha waaye la en tout cas mhm. comme ni ñu ko waxee rek tàmbeedu nañ waat xel bu baax ci ay màggal gi mhm. parce que màggal moom maanaam gan buy ñëw war na mën a am nu mu mel Mm-hmm. war na mën a am comportement bu baax mm-hmm. donte amoo loo indi mais na nga ànd ak yar mm-hmm. na ànd ak tamit correct na bañ a nekk fa di seetlu ba xam ñi am nañ wala am ñu wala kële moo ëppale wala kële mi ëppale lu jox lekkal fu ñu tëddal tëddal parce que neexul neexul jamono neexul waaw kon boog lépp luñ la mën a jox rek bul xool parce que yàlla dafa bind te yemalewu tey nit ki da ngay xool li nga xamante si ni xam kan moo ëpp alal ci àdduna mooy ki doylu waaw ah, boo doyloo rek riis nga. dëgg mm. la waaw ah, boo doyloo riisoo. riisoo loo doo ko gis nit ki li ngay li li li gàllaaj boo xamante ne mooy boo ko takkee doo ñàkk mooy doylu. doylu mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mu doy la. waaw ah, doo mës a ñàkk. gàllaaj la boo xam de. loo xamante ne yow dalay leer ne. yow da ngay xool lii da ngay am lii ba pare di tegaat feneen sa bët. Mhm. da ngay sonal sa bopp. da ngay sonal sa bopp. yàlla moom tegul kenn lu mu mënul. déedéet li nga am mhm. ak li nga mérité ak li nga war a lekk bind na ko pare ci màggal bi mhm. loolu ngay jël. waaw am na ñuy lekkee ñaari loxo nag. <laughs> sa classe bi mbayeen yeeg tàmbeen yeeg góobeen sa classe bi Massamba <laughs> Massamba maa ngi nuyu docteur Diop Mahfous dentiste la fii ci 28. xam naa bëgg na dugg. góobee neexul. docteur Diop maa ngi lay nuyu. dégg naa moo sut ci waaye waaye waaye du ma yem ci ci ci nuyu ko dama ko bëgg invité mu ñëw jàpp ci suñu émission bi de. macha allah waaw waaw bokk ci ñi koy dooleel. incha allah mu ngi fuus. Mm-hmm. loolu moom bëgg naa nga taxaw ci moom sama jóobeen bu baax la bokk. ndeysaan yeneen jóobeen ah sama la sant nag. ah, ah, ah, ah. di. ma jóobeen bu baax bu ne na moo ko jaayee. la. macha allah sëtu saa xewar Fatma la. surtout ah. bu Lat Joor Ngoone Latiir la ah. ah, ndax Saakaar ma ak ki nga xamante mooy Matar Ndumbe ñoom ñaar seen ñaari yaayee bokk ndey ak baay texe jaaso ak Kire Diasso ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñoo moom foofu la bokk ba tax na moom mi docteur an koy docteur an koy dégg euh, euh, dentiste nee naa la bëñ bu fi baax yow te màggal am na ñoo xamante ni bëñ moom am na ñoo xamante ni màggal buy jub si dañuy am bëñ waaw ñu lay metti yàlla la leen natt <laughs> docteur gis naa ni yow di nga bëri ay gan yow moom bul sonn incha allah rabbi incha allah macha allah sama nijaay nee bëgg a changer ay bëñam <laughs> macha allah <laughs> Tambédou wax dëgg sa yàlla ñu ngi mhm. am mbégte contentement mhm. euh, di waat bu baax si auditeurs yi ak téléspectateurs yi nga xamante si ni ndeysaan bëgg nañoo dugg euh, te mënuñoo dugg waaye tamit euh, nañu xam ne rek affaire de technique la ndi mhm. wax rek yoon yemul ci benn ndax instant bii nii ni comme màggal gi jub si na plateau yi day gën di avancé day gën di yaatu parce que yow moom dootuñu la bàyyi benn yoon si invité yi je pense que tey na jàpp ne chaque jour café mën nga ñëw di assister bu ñuy waxtaan bu baax a parce que tamit rafet na mm-hmm. macha allah parce tamit euh, àdduna moom xel mu rafet rek moo fi am ah, solo ah, mm-hmm. te nit ki tamit bu amee xel mu rafet mm-hmm. am tamit idéatif bu baax am tamit li nga xamante si ni mooy reconnaissant da ciy baax ñu jàpp parce que jàppal ma jàpp la du ñu jë booloo parce que yàlla nee na ñi gën a jege àjjana mooy ñu jàppante mais ñi gën a sori àjjana mooy ñu jàppante wul ak loo mën a jaamu yàlla te jàppante woo leen da ngeen sori àjjana ajjana moom da ngeen koy sori safara ngeen gën a mën a jege mais bu ngeen booloo bu ngeen booloo doon benn mm-hmm. maanaam jege ngeen àjjana mm-hmm. alhamdulilah kon booloo rek du ñu fa dugg mukk te bëggantewuñu àjjana duñ fa dugg mukk te jàppantewuñu te àjjana nu mu yaatoo nu mu toll mu kese kese kese xajul àjjana dina fa wéet de dina fa wéet moos ak a wér mm-hmm. waaw tijaan kese kese kese kese xajul àjjana laayee nag extra extra mm-hmm. kon innamal mu'minina ixwa waaye mm-hmm. na ñëpp jàppoo ah! voilà kon boobu nañ jàpp rek yàlla baax na waaye tamit euh, di gërëmaat bu baax a baax euh, Serigne Fallou euh, Galas Syll euh, Ousseynou Mbodj sama waa ji macha allah ñu ngi koy jaaree mbokkam moom de génn àdduna mm-hmm. euh, di wax rek di wax yàlla na ko yàlla yërëm moo nag macha allah mm-hmm. euh, moom it euh, loolu la loolu la fi annoncé sànq rek mm-hmm. di wax àdduna noonu la demal maa ngi ñëw kullu nafsin zaa'iqatul mawti bakkan bu ñam dund rek dina ñam dee inna lillahi wa inna ilayhi ci moom lañ jóge ci moom la ñuy dellu kon bu ñu tiit ci ki ñuy dellu waruñu tiit ci yàlla dañu dalal suñu xel ci suñu borom xam ne ay nitu àjjana la ak a wér ak a coono bi ñuy daj ci mhm. àddina mhm. yàlla soxorul déedéet yërmandeem yaatu na nit a soxor mais yàlla soxorul yërmandeem yaatu na yërmandeem yaatu na nee na sama yërmande nag benn rek laa fi wàcce de mhm. te benn rek la benn bi mooy fonctionné fii ci àdduna bi benn yërmande suñu borom bi mu wàccee mooy fonctionné ci àdduna bi dara dara fonctionné wul lu dul benn yërmande suñu borom bi mooy fonctionné nee na yeneen dama koo téye ba ëllëg moo tax waa ji ba ñëpp bañ ko àttee war ko dugal safara mu ne gaa yi ne ko malaaka ne ko ne ko acca yow nañ dem safara nga jëm mu ne ko déedéet deew ma de ndax yàlla moo ne woon yërmandeem du jeex wallaay ndeysaan ci baat boobu te gëm-gëm googu yàlla moo ne woon moo ne woon àdduna benn rek la wàcc ci yëf da koo denc damay xaar moom xaar mu wàcce yeneen yooyu laay ah. toog di xaar mais demaguma. ndeysaan dara ne ko nekk malaaka bi ne ko waaw ne ko wax nga dëgg sama yërmande du ma sa jeex na dugg. <laughs> lay lay xanaa kii moo baax. mun na macha allah. Mhm. xam naa tàmbeedu li ñu ci waxtu daanaka. Mhm. Euh, maanaam mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jeex. Mhm. Euh, dañuy continuer rek euh, maanaam ñu daal di def table ronde. bu ko defee ñu daal di bàyyi soxna. Njaate eh, soxna Njaate Njaay ah, madame Niang vraiment émission bi dafa neex ba bëgguma tàggatoo. <laughs> ah nañ ñaan yàlla mu bañ a doon yem ci biir. Ah, di nuyu képp ku toogoon di nu seetaan ak ña amoon yéene def ko tamatale mhm. wuñ ko. Mhm. di leen fàttali it mën ngeen ko dab dabaatal ci YouTube bi. Mhm. incha allah euh, peccum riir bu neexee yaay yaa jàpp ci mbagg euh, Soxna Mbacke ma taay ci di la jaajëfal. di wax ne maam Soxna <laughs> duñu taay di la sant di la gërëm. foofu doo fa dugg de moom sama la doo bokk foofu. di la bëggee. di la ñaanal jàmm. allahumma amiin di la ñaanal yokkute. allahumma amiin yàlla sa jàmm yàgg. allahumma di ñaanal sunu leader docteur Ablaye Niane yàlla gën ko dëgëral day sant barkalla macha allah bàyyi ko ba ñu. yóbbu ko fa incha allah njafaan xam nga njafaan njafaan. njafaan daan naa dégg ma. njafaan mooy luñ boole yi njafaan damaa bëgg mu defal ma njafaan moom xam na njafaan. bu bokkut ak buy bisaab ak kenn. docteur defal ma njafaan. docteur Diop la <laughs> docteur Diop nee na ko defal njafaan. kon baax na dégg na ko di remercier waa. Euh, njaate pressing yëpp euh, ndax xam naa ne ña nga toog bàyyi passé beeg yëpp di di di mm. gis nga ko noonu maa ngi leen di mm. bu baax ah, ñoom di ay mbàjjeeg ak ñoo ci ay kii nag euh, costume ay ay rideau lépp la ñuy def. ñoo ah. ay ci chemise passé ko ba mu ah, ah, taal. pressing sax dama bëgg mu jàpp ci émission bi. Mm. jaata kaay jàpp ci mm, ndax bala bala nga naan naam danga fay ne. incha allah dina njaata pressing dina ci jàpp. bu baax incha allah mm. maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp. Uh, sama yaay yal na ko yàlla dooli wér. allahumma amin suñu borom kër yal na ko yàlla defal jàmm. soxla. yàlla mi am jàmm te kum jàmmal nga am jàmm yàlla na nu may jàmm ñu allahumma amiin jaay allahumma amiin jërëjëf ta soxna allahumma amiin allahumma amiin monsieur Niang jërëjëf <laughs> waaw monsieur Niang lépp moom la moo ñu ko yombalal lépp moom la macha allah monsieur Niang ñu ngi sant di la gërëm ah. Ah, lépp moom la suñu suñu jigéen bi gis nañ ko mhm. ak ak ak magam ba ca kër ga mhm. wallaay yàlla na yàlla jubale allahumma amiin yàlla na yàlla sàmm allahumma amiin yàlla gën a euh, rataxal diggante bi allahumma amiin eh, da ngeen bëri feem yow tam nga du waxal ah lan lay waxati bàyyi laa kàddu gi yow. waaw man de macha allah rek di am contentement ak mbégte. Mm-hmm. Euh, dama doon nuyu sama mbokk takku der yi ma mbokkal dëkk mm-hmm. ku ci mel ni Baye Fall borom kër Moussa Keba maa ngi koy nuyu di ko ziar doon jàmbaar lool mm-hmm. di nuyu baaji tamit macha allah doon jàmbaar moom ma ngay monte fële ci kër sëñ mun tàqa bu ngoonee ba mu takk der gi rek romb ma sama xol bi day tooy xam ne suñ yooyu mm-hmm. kenn du ñoom war nañ leen gën a yokk jox cër dañuy tëdd di nelaw ñoom ñu toog di ñu garder dëgg la nekk si oto yi ñoom ñu ñu contrôler oto bi baax na wala am nay kayit wala leneen ak leneen kon ñu leen di jaajëfal di leen sant leen ñaanal eh, infirmier genre euh, Ziga maa ngi lay nuyu dégg nga ñu ngi doon Malick auto école. waaw <laughs> ah, di nuyu ñëpp nag macha allah di nuyu saa su nekk sama mbokku immigré yi nga xamante ni ñoo nekk fële ca Italie dëkk bu ñuy wax Caserta Napoli Salerno Benevento. di ci jiital Badji Badji Souran euh, Dior Badji Souran ak Badji Sila ak Mati Ndoye Ndoye ma Maram Ndoye lépp xamul gaal <laughs> maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu soxna Xadi Mbàkke sama xarit sama genn wàll sama sang. madame Guèye nekk fële ca Kaolack soxna Asu Mbàkke guy mbind di nuyu samay soxnay soxna Njaat dama am macha allah sama jabar frère ñëpp a baax macha allah di nuyuwaat encore une fois sama kuréeloo ak sama dëkkandoo yi ma dëkkal mm-hmm. fee ñoom ñëpp a baax macha allah maa ngi leen nuyu leen mm-hmm. ziar leen jox seen wàccuwaay mm-hmm. di ñaan màggalu jàmm ak salaam di ko ñaanal nag jullit yëpp dem ci baa dellu ak siin fekk fi jàmm bàyyi fi jàmm ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoo nekk rawatina suñu waaw suñu mbokk euh, waaw ñu ngi leen nuyu bu baax ak seen commentaire macha allah ñu ñëpp macha di nuyu Ousseynou Mbodj kooku moom kenn la ci man macha allah maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàcc waayam di ko jaale tamit di ko ñaanal kooku yàlla yërëm ko xari ko àjjana hmm. ak soxnaam su baax soo su dee soxna awa ak sama yaay du ma ko fàttee euh, soxna jee tàmbee du ndax yaay làqu na depuis 2018 mais dafa taxaw taxawaayu yaay doon yaay doon mag doon lépp mhm. di ko nuyu di nuyu suñu caat nday ami tàmbeedu mhm. macha allah ñu ngi leen di nuyu di fàttali ko waat encore tamit maam soxna Mbacke madame Niang maam soxna kooku ko fàtte benn yoon maa koy nuyu di ko ziar maam soxna Mbacke madame Niang maam <laughs> su Anta Ball depuis Louga Fa sama xarit bi nekk Kébémer. waaw mi ngi lay nuyu waaw ngi koy nuyu <laughs> ah, kon kontaan naa. ayca kon di leen dox dig rek xam naa ba benn yoon incha allah. ayca merci beaucoup soxna Tambédou soxna euh, Ndiaté Ndiaye euh, madame Nia euh, di wax rek ñu ngi am mbégte contentement bu baax ci yéen. Mm. vraiment ci seen initiative bu rafet ak seen xel mu rafet. Mm. di wax rek émission bi day wéy di continuer ci YouTube bi. ñi nga xam ne yéen a koy am par YouTube di ko seetaan à travers monde entier. Euh, di ko di leen jaajëfalaat bu baax euh, mbokk te téléspectateurs yi nga xamante si ni ndeysaan ba ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu mm-hmm. ñu ngi nekk di euh, seetaan émission bi gis ngeen ñu doon waxtaanee li nga xam mooy wàccaay màggal waxtaane li nga xamante si ni moom mooy gan yi nga xam ñoom ñoo war a ñëw di fekk si ñi nga xam mooy seeni mbokk moo xam seen i dëkkandoo ak ñu mën a doon ñoom seen taxawaay lan la ak ñi nga xamante si tey ñooy toog di recevoir ñoom it seen taxawaay dan la mhm. loolu lañ doon waxtaane gis ngeen li ñu fi développé am na solo trop boo xoolee tey soxna Tambédou lu mu fi développé ak soxna euh, Diatta Ndiaye euh, mhm. madame Nia lu mu fi développé am na solo trop mu nekk lu am solo ma leen di sant di leen gërëm euh, di wax rek seen xalaat rafet na seen wax rafet na seen kàddu rafet na seen i tamit baax na macha allah <laughs> kon sañse bi de <laughs> njaxat couture moo fi jaar njaxat jeng njaxat jeng jeng saala ci marché maam binte waaye di nuyu sama coiffeuse bu ñaal boobu. ndeysaan soxna Khady Bambey mi ngi fii ci route jannatu. route jannatu ndeysaan moom it ku disponible ku baax. ndeysaan ku mën lu rafet. macha allah xam naa ne daa soxna. Mm. dinaa di la ko indi léeg-léeg mu lay xawal defal. tuuti poudre ah, yu sew waaw man loolu la sax. mais damay ñëw rek toog. ma jaar da ngay rek toog gën a rafet. ah man kay instant da ngay ñëw toog gën a rafet. du yoon yaa ci dàq. ah waaw mais non du yoon bi man damay ñëw rek toog. géej di ma bàyyi xel foofu noonu ci Kébémer di boo xale bu am jom. Mm. Eh, mën a liggéey trop macha allah. Mm. Eh, Guèye salaam mi ngi may envoyé message naan ma maa ngi mm. kontaan trop di maa ngi suivre émission bi. Mm-hmm. moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. ak mbooleem ñi nga xamante ni soxna Marème Thiam nga xamante ne ba sama yaay làqoo ba léegi moo ma moo ma yar ba tax na di sama mag di sama doomu ndey xaritam baab li naan kan si kii jaay tis yi xaw ma waaw waaw Babacar Sarr Babacar Babacar Sarr Babacar mm. macha allah borom koo koy doomu ndey Diouf moom mooy jaay tis yi ndeysaan macha allah foofu noonu ci Ndakaaru mm-hmm. waaye tamit sama mag ji euh, di Marème di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér nee naa la taaw bu taaweekuwul la taaw bu ci rakkam la di ko wax rek yal na yàlla guddal fanam waaye tamit di sant euh, Euh, magam rakkam bu góor di euh, Pape Thiam moom it ku baax. Hmm. di suñu mag ak mbooleem waa famille bi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm du mbé mbaj nii nañ la bu baax a baax macha allah. Hmm. waaye na ñëw Touba nekk fi di tubaab tubaab lu dégg nga. ba ñu jàpp la ba bala <laughs> loolu dinañ si waxaat. mais maa ngi santaat bu baax a baax sama maman Fatou Diop. Euh, di bu baax sama maman Ndeye ñoom fa ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ak sama xarit yi nga xam te ni may bàyyi xel à travers monde entier ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox di daje rek xam naa ne ba beneen numéro incha allahu rabbi di gërëmaat bu baax Serigne Fallou Galas la di wax rek kooku macha allah mention spéciale ci li nga xamante si ni moom lay liggéeyal euh, kër gi waaye tamit di santaat techniciens yi nga xam ne ñooñu jàppandal parce que ñun dañuy solo rek toog. Mm-hmm. lépp lu mm-hmm. fi baax rek ñoom la. loolu ñu gisee cadre bi rek ñoom la Habib Thiam ak équipe am ak ñi nga xamante ñoo nekk si régie bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Mm-hmm. ak mbooleem ñi nga xamante si ñoo doon déglu doon bàyyi xel ak ñi dugg mënuñu dugg ñu ngi jéggalu ci loolu encore une fois di leen daje ba beneen incha allahu rabbi fii ci Assalaamy TV jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci à tous. jaajëf.